لنا من الشفاعة في غدي ينال ربا كل عبد واحد على خطي في ذنبي أو عن تأمدي جرائرنا تمحى بجاه محمد إذا شفع المحبوب جاز المباح جو جرائر بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما mbokku jullit yi mbokku àdduna bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal di ñaan yàlla ñu yàlla boole baal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu waa àdduna bi yépp fépp foo xamante ne téléspectateur RTS 1 mi ngi ci àdduna bi ñu ngi lay nuyu di la ziar fii ci Sénégal ci Afrique ak ci bitim réew diaspora bi yëpp ñu ngi leen di nuyu ci nuyo yooyu ak ziyaara yi ñu jiital ci al alxalifatul am di taifati tijaniya cheikhul khalifa serigne Babacar si nil Mansour khalif général de Tidiane ñaanal ko yàlla yàlla may ko wér guddal fanam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu rakam ja Cheikh Alxaaji Malick si Abdoul Aziz ñaanal ko moom it wér ak gudd fan yàlla gën ko boole gën koo tàppale ak magam jooju ak xaritam boobu ak sëriñam ak soppeem boobu di sëriñ Babacar Sy Mansour di nuyu tamit le recteur de l'université de Mamadou di sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di nuyu seen ay rakk seen ay doom seen ay sët ak mbooleem njabootu maam Cheikh Al Hadj radiallahu mbokk yi nag bu ngeen gisee image yi di gis tamit kàddu yi lim leen di fàttali mooy RTS andina na ak yeen ci gamu bi fas yéene leen dëgtal tey nag lépp cegamugi. xam ne na len ci gamu gi indil len ko étape par étape commentaire commentaire ko tambale ko ci bi gan yi di ñewé di len ko commentaire ba kéro guddi gamu gi ba kéro khalifa bi di ñaanal ñepp kon nak mbokk yi lolu moy li nga xamanteni fa tabarakallah moom la talibé yi def ci gis ngeen bu ngeen gisé image mbolo mu bari bi nekk fii ci buntu zawiya juma sëñ Babacar Sy radiyallahu anhu foofu ngeen gisee nag ki nga xam ni moo egg si noonu mbokk yi keroog nga xamante ni mooy altine 25 septembre nga xamante ni mooy bisu noppalu bi bisu mooy bisu fa tëju burdu bi ci la son excellence le président de la république son excellence monsieur Macky Sall ñëw Tiwaawan seet si xalifa bi indil ko ndokkeelu nation sénégalaise bi yëpp ngir lan ndokkeel xalifa bi moom mu ñëw indi kàddu sénégale yëpp gis ngeen président de la république bi mu wàccee ki nga xam ni moo ko teeru mooy sëriñ Mansour si Djamil di doomu sëriñ Moustapha si Djamil ànd ak ay rakkam sëriñ Mouhamadul Habib si bu sëñ Mansour gis nañ ko gis ngeen ni président mi ngi noonu toog ci zawiya Seydil Hadji Malick Sy radiallahu anhu nga xamante ni moom moo woote ànd ak gouvernement am gis ngeen premier ministre mi ngi noonu ci wetam ñuy ñëw di ziyaara Seydil Hadji Malick ba mu fa jógee son excellence le président de la république gis ngeen ko mi ngi noonu dem ci juma Serigne Babacar Sy radiallahu anhu yi nga xam ne moom moo njëkk a nekk xalifa Seydil Hadji Malick gis ngeen président mi ngi noonu ci wetu Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz ñu ko gën xam Serigne Pape Aïda Sy mu toog ziar Serigne Babacar Sy radiallahu anhu ba mu jógee foofu nag mbokk yi xam ngeen ni son excellence le président de la de république dem na ci këru xalifa bi di Serigne Babacar si Mouhamadul Mansour yal na yàlla guddal fanam gis ngeen xalifa baa ngi noonu recevoir président ci këram ñu ngi dégg xalifa bi di wax noonu yéen a ngi koy gis mu feggoo ak ca càmmooñam ki nga xam ni mooy rakkam sës ci moom rek di sëriñ Maodo si Dabbaax fa tabaarakallahu ànd ak ay rakkam sëriñ Mansour si Dabbaax sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane si ak ñi nga xam ne ñooy seen ay doom gis nañ ci wetam sëriñ Mansour si Jamil mi ngi noonu toog sëriñ Mouhamadul Habib si bu sëriñ Mansour mi ngi noonu di jottali xalifa bi ànd ci ak sëriñ Cheikh Tidiane si bi nga xamante ni mooy taaw ci sëñ Mansour borom daara ji ak ay rakkam ak mbooleem njabootu Cheikh Al ñu ngi noonu mbokk yi yéen a ngi gis son excellence ñu ngi noonu nekk ci ndeyjooru xalifa bi toog indil ko ndokkeelu askan bi ndokkeel ko ci gàmm gi sant ko ci taxawaay sant ko ci li nga xamante ni moom la ko xalifa bi di jàppale ci ay conseil ci ay ndénkaane ci ay ñaan loolu lépp nag président tam ñëwale na ci di ko wax ni ko ni Eh, mi ngi ñëw di ko tàggu di wane ni moom fi mu ni waajal na ginnaawam maanaam eh, ginnaawam mooy Sénégal comme ni mu ko waxee waaye nag élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal mu àndaale ak le premier ministre Amadou Ba bi nga xamante ni moom la wax ni moom la tabb ci ginnaawam ni ngi noonu yéen a ngi gis njabootu Cheikh Al Hadj Malick yooyu gis ngeen Serigne Pape Makhtar Kébé di nga ki nga xamante ni aussi mooy Serigne Papa Diop Serigne Abdoul Aziz Diop. يعني جس فتبارك الله مبكيب عند كيف كويس رسيد الحاج مال جس جن سرني أحمد أسي بسرني مصطفى سي جامين مين نونو توك عند أك خليفة بي جبور جيب كيف كوي جبور شال حاج مال رك خليفة بي وحنا لنجنيو نتيرل كو جنام بي تالي يب نيب نيو تيرل كو جنام غوغو دي سون إكسلنس لبريزيدان دلار بيبليكو Actuellement, fi mu toll ni mbokk yi yeneen gis ki nga xam ne moo jël kàddu gi di Serigne Maodo si Dabbaax di ki nga xam ni mooy taawu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh boroom xam-xam bi boroom yar bi moom la ñuy tuddee le prince de powet yàlla may ko ci wàllu poésie mu ci wax lu am am solo di ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy Serigne Modou Sy gis ngeen kàddu yi nga xam ne fa tabarakallahu mi ngi koy rotal ci kàddu teraanga kàddu cant kàddu ki yaatal ci bu la kilifa setse di njiitum réew am na ay kàddu tatagal kàddu ñaan ndax koo xamante ni soo ko ñaanalee bu réussir àdduna Sénégal gépp moo réussir kooku yaa ngi dégg ñaan yi nga xam ne fa tabaarakallahu moom la ko sëñ Mor Sy di ñaanal loolu mbokk yi dafa bokk ci li nga xam ne ñoom dañu ko donn ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax li ñuy wax pouvoir ak temporel ñi nga xamante ni nag euh, euh, mooy euh, sëriñ si nga xam ne fa tabaarakallahu ñoom ñoo yor diine gi état bi yor lépp lu jëm ci wàllu administration ñoom ñaar dañoo war di dëppoo di jàppalante di ñaanalante gis nga foofu mooy kado bi nga xamante ni ci ndigalu xalifa bi jox nañ ko son excellence la président de la république utal ko kër may ko kër foofu Tiwaawan gis nga Tiwaawan dëkku teranga la dëkku teranga la dëkku mbégte la gis nga kado yooyu nga xam ni xalifa bi jox na ko yéen a ngi gis Serigne Moustapha Sy doomu xalifa bi ñu mu ñëw indi ay teranga yooyu jox ko son excellence le président de la république ndax nit moom teranga rek la xam doomu aadama boo ko teralee rek fa tabaarakallaahu mu bëgg la comme ni mu bëggee teraanga fa tabaarakallaahu euh, mbokk yi loolu mooy li nga xamante ni moom la ñu jëlee moom la ñu doon présenté ci ñëw président bi ñu bàyyi leen dégtal leen nag kàddu yi nga xamante ni nag moom moo aju ci bi président de la république ñëwee ci domicile ci këru xalif général des Tidianes sëñ Babacar Sy Mansour kàddu ya mu rotal ak yañ ko tontu mbokk yi ñu teewlu loolu di rak di soppi ci khalifa bi moy yëkkati kàddu di wax ni alhamdullilah rabbil alamin ne mi ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax lu xew rek mom la ne tay xewit barena ne ne mu nekk histoire boo xam ni bañ ko dalee bind yàgg na te mooy ba doomu aadama nekkee représentant yàlla ci kaw suuf ne te it maam aadama li muy nekk aadama am na it ay awaadim yeneen aadama waaye nag li yonent bi sallallahu alayhi wa li nga xam ni moom la maam Cheikh El Hadj Abdou daan wax daf ko nettali waaye waxu ko nee na mbirum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàmbaliwul rek ci maam Hadj Abdou wala Cheikh El Hadj Malick ak sunu baay yu baax yi ne loolu yàgg na te moo di ba yàlla waxe mam adama ni ko yow yaay sama représentant ci kaw souf kamu jare le la mbir ci loxo yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ak yàlla sen digeunte yàlla rek ko xam motax sa mam ju bax ci Cheikh Alhaaj Malik radiyallahu anhu dan waxni allah allahu ganiyun bi nafsihi an nafsihi yàlla soxlaalul yàlla dara bu ko defee nag président ne ci turam ci turu xalifa bi président xalifa bi ngi leen di dalal ne Seydi Aboubacar magam ji ne xaritam la wallaay soppeem la ne yàgg na ak moom ne 1948 ak léegi jëm 50 ne loolu yàgg na du tey mu di ko jàngal alquran ci keppaaru alxaaji Cheikh Ndiaye ma béy ne di ko taxaw ak fii ci Tiwaawan ne bu ñu masaana gàmmu si ne du bëgg àlluwam dara manqué ci loolu moom mi mënu ko wax du ko wax waaye bor la buñ ko war a fayee ne ci teewaayu président Macky Sall ne daal président nga xam ni magam ji léppam la nee na benn benn nit yi may ñëw di ma seet si daf leen di faral di wax ni na ngeen yëg ni jëmmu Maodo si mooy wax waaye waaye nag jëmmu kilifaam sangam lay wax kàddoom lay waxe ne moom mii bëggul ko wax jëme ci moom dara nee na moom xam na ko waaye moom mii am na xasida benn way poème bu mu def ci moom ne daf ko bind ca biir waye ni ko sama lépp a ngoog ne tamanit ba ma koy wax lu ma gëm laa wax ndax moom mii dafa di ku dëggu di ku takku di ku dogu ne ci wàllu yàlla ne moom mi toog dara feesul bëtam lu dul yàlla waaye su yàlla feesee sa bët war nga ni gees ay jaamam waxanteeg ñoom ci dëgg jëflanteeg ñoom ci yéene ju sell ne daal mi ngi koy sant di ko gërëm ne président yàlla na la yàlla dollee sàmm amin ne sa digganteeg moom xëy na mi ngi lay fàttali loo xam ni fàtte woo ko ne taxawu boo boo xam ni moom nga ko taxaw fa tabaarakallahu ne li dal ci sa kaw yëpp nag lu naturel la ne àdduna ku am gannaaw dinga am baatu gannaaw kon kuy fay kilifa jikkoy kilifa mooy rek président yow ni nga mas di doxale ni nga doxale man yàlla nguur maa ko amee mu sax nee ma téye ko sama loxo du ko génn mukk kuma neex man yàlla sàkk samp ca sama baaraam mosal la ca waaye la ma la mosal boo taqamti la nga ca amoon jeex na boo koy taqamti rek jeex na ne président sëriñ bi ne mi ngi sant yàlla rek nii mu la ko waxe ne seen ànd yàgg na ànd bi yàgg na ànd bi yàgg na ne fukki at ñaar nekkul fukki waxtu ñaar nga nekk ko fi ñi nga àndal kenn ku nekk am nu mu mel am xalaat am gis-gisam di ko xoole di ko waxe waaye nga ànd ñoom rek ba bésu yàlla tey jii yàlla lu ne sàkkal na ko dayo mu ni woon fii lay yam tey fii la ko yàlla di yamale su ko defee nag mën na wax ni daal ñi fi daje ñëpp ay mbokk lañu ne ak premier ministre Amadou Ba ne Amadou mii yàgg nañu lool ne premier ministre sa wayjur sa lépp nee na yàgg ngeen trop ne yàgg ngeen lool ne moom xamante naag yow bu baax a baax ci jaar-jaar yu baax a baax ne jaar ngeen fu bare fu rafet ne ku ci nekk nag ne fa mu doon itte mu taxaw la fa moom daal nee na noonu la koy wax itam ci doomam jooju di ministre de l'intérieur Antoine tabarakallahu Antoine Diome fa tabarakallahu <laughs> nee na moom daal fekk na ay waa këram gañe ko ci moom <laughs> ndax li muy digaaleeg waa këram ay waa njabootam di ko digaaleeg njabootam njabootu kër gi ne loolu daal lu rëy la ne loolu daal bett na ko sax ndax xalaatu ko woon waaye terewul nag li maam Seydil xaaj Malick rakkam ju baax ji wax léegi rek ni wax ni nit bula la lu ne jaratul tàllal loxo su boobaa da koy la jar rek ne daal mi ngi sant ci li passé yëpp réew mi nag réewum yàlla la ne te jaam yi fi nekk nag njabootu yàlla lañu bu ca yàlla tànnee kenn ci doon tànn kenn dafay seet waaw ko ëpp njariñam ca jaam yi mu tànn kooka yàlla moom noonu lay doxale alxalqu kulluhum iyaalullah mbindeef yépp njabootu yàlla lañu yàlla bëgg na ku leen toppatoo di leen bàyyi xel tabaarakallah moom mii nag di Amadou Ba fas yéene taxaw ci kanamu jaam yu wuutu la ci ñoom yal na la yàlla samp ba boo fi nekkee dara bañ fi yàqu li ci nekk li fi nekk dara bañ cee yàqu lépp jëm kanam ci réew mi incha allah li ñuy wax Sénégal émergent yal na yàlla def mu gën a émergent ci sa loxo commencé woon nga ko commencé nga ko doxal nga ko ba ñu ko yaakaar ci moom yal na ko ci yàlla jàppale ndax su boobaa suñu njariñ la ñun ñëpp mi ngi leen di jéggalu nag <laughs> nee na kàddu yi bare na nee na wax ji bare na ne Maodo Serigne Maodo rakkam moom la joxoon mu war a wax nee na waaye nag bi mu waxee nag moo ko moo ko influencé nag moo ko moo ko yëngal waaw moo mu wax ne moom daf ko waxoon rek ni ko man kat du ma wax yow ba nga ñëwee ci centenaire Sidi Hadj Malick keroog moo wax keroog moo wax ak yow. te la mu waxoon a yow bala nga xam ni dëgg la moom rek la répété waat wax jooju masul changé ba tey ngeen jéem a ànd ne li fi des ngeen ànd jiboo jàmm ju dul jeex ju doy jàmm alalu yàlla la te mooy yéene jaam yi yàlla na yàlla jàppale leen ba jàmm jooju dellu si fii Sénégalu dem ga dellu si waat léeg-léeg nit di yëngu ci loo xam ni du ci am lum ci bëgg waaye derem dina ci yàqu te aajoom du faju no yooyu yëpp nag yàlla nañ ci yàlla musal jërë ngeen jëf yàlla ñu yàlla musal ci loolu yàlla nañ yàlla wane la waat ñu gise waat ci jàmm ak sutura ak teraanga moom la ñu xam moom lañu am moom lañu mas di jëflante yàlla na ko yàlla yokk saxal amin bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam

mottali liggéey boobu ndax àdduna noonu rek la war a mën a demee te loolu yàgg nga di ma ko wax ci biir wax nga ko sax si biti kon nag jërëjëf sëriñ bi ci sa taxawaay jërëjëf si sa jàppale jërëjëf ci ni nga xamante ni loolu nga wone te ñëpp xam ko ci réew mi te Babacar Sy ku ne xam na dëggoom li nga xam ne mooy li mu gëm rek lay wax te ku ku ku ku nekk ci siraatal mustaqima la loolu lu jiitu nga toog fii comme xalif général la moo tax ñuy am mbégte di rafetlu it liggéey bi nga liggéeyal diine ji liggéeyal ko tarixa bi yoonu mu yoonu Cheikh Ahmed Tijane Cherif radiyallahu taala anhu te jumaa ji rek nekk ci preuve te jumaa ji yàgg na lool te chantier bu mag a mag la te yaa ko te yàlla indi ko fi yan na ko yàlla mottali te daanaka jeex na kon loolu dama ci rafetlu sa liggéey kon mën nañ wax ne ndono bi de puso bi réeréwul fii ndax li nga waroon def yëpp def nga ko muy ci Tivaouane ci modernisation Tivaouane luñ si mënoon it jàppale nañ la si ndax Tivaouane dëkku diine la muy ci tali muy ci hôpital bi muy ci lépp loo xam ne luy indi Euh, taaru dëkk bi la ndax dëkku diine la li ci des nag mooy ci wàllu diine ba tey ñëwoon naa fi 2015 fekk fi suñu wayjur sëñ Abdoul Aziz Al Amine na yàlla yokk leeram moom it fa mu nekk ma ne ko woon réew mi mu ngi bëgg dugg ci jafe-jafe ndax lislaam bi ñu koy mbubboo woo bëree nañu te li nga xam ne moo téye woon Sénégal dëgg-dëgg ci stabilité moo doon suñu islaam bi ñu am sufiyanke yi téye ko keneen ku nekk yi am nga nag sa yoon man du ma dugg ci gàm boobu waaye li fi maam yi def mu ëpp junni at bi lislaam duggee Sénégal léegi ëpp na junni at kon loolu waruñ ko foye ba di ñu bëgg a jàngal yeneen pexe yu bees loolu nag pour mu mën a wéy foog këru diine yi ñu continuer di ci jàngale lislaam continuer mu nekk ay foyer ardent ni ko mag ñu baax ñu daan defee loolu mooy tax ëllëg ñiy ñëw bëgg a wëlbati xel yi danañ dajeeg ñu am xam-xam mën a armer taalibe yi armer population loolu dafa am solo état am na ci wàll mooy lutter contre forme extrémisme yi te mu ngi suñu frontière amaana sax mu ngi ci biir réew mi donk loolu mooy recommandation bi may njëkk a def Le Sénégal nous continuer de ko la stabilité sur le lépp xej bu loolu weesoo nous avons un premier ministre un euh, ministre président du conseil économique un euh, ministre de l'intérieur une délégation de ñu fi lim ministre Abdoulaye Diouf Sarr ak ñeneen ñi nekk fële ak ñi ànd ak man yëpp yàlla def koo gis ku ne bu doon sa sago sa ginnaaw da nga koy defar mu rafet ginnaaw bi nag mooy Sénégal stabilité d'abord jàmm ji ñu saxal ko liggéey bi ñu sumb ñu mottali ko te loolu ci équipe bi laa ci am yaakaar tama leen leen di dënk ngir ñu jàppale leen du jàppale leen ngir seen bopp waaye ngir Sénégal la ndax bu réew mi wàccee yoon bi mu jël fa mu jëm baaxul te am na luñ ci jot a gis jamono yi ñu génn te loolu lancement la rek kon loolu nag jar na fànq dan nañu yàlla musal si luy indil jafe-jafe réew mi ñoom it ñu góorlu jàppalante nekk benn ku ne fàtti sa bopp xool réew mi xool it exemple ci man mënoon naa ne kat comme nii la am naa si droit damay dem coow li ne kur xeex bi jóg waaye jaru ko jaraluma ko man bokk jaraluma ko kon kenn ku ne boo fàttee sa bopp xool réew mi rek ànd bi dana mën a rafet su ko defee ñëpp jàpp si Sénégal jëm kanam am nañ yaakaar si yow am nañ yaakaar si kilifa diine yi am na rôle bu ñu war a jouer sur la stabilité du Sénégal te rôle boobu ñu leen koy ñaan si mosu leen si jóg d'ailleurs kon sëñ bi man xam naa ne wax ji du bëri ndax euh, dañu ñëw ndokk si la si si gàmmu gi di la wax rek ni lépp lu ñu mënoon de wala lu ñu amoon yéene ci Tiwaawan def nañ ko ci fukki at ak ñaar yi lu ci amul it xëy na yàllaa ko loon waaye suñ kem kàttan def nañ ko ngir jàppale Tiwaawan jàppale këru diine yëpp jàppale réew mi li ci des itam nag àdduna moom bés bu ne ak luñ si luñ si tabax bu bu fi ñii ñëw bu ñu ñëwee dinañ continuer liggéey bi ndax

suñ Mansour si Jamil ak mbooleem si Habib mbooleem njaboot gi yëpp ku ma si tudd ku si tuddul ñoom ñëpp la ñuy sant di leen ndokkale suñ Cheikh bu suñ Mansour euh, ci bés bu tedd bi donc euh, man daal maa ngi sant yàlla bu baax sëñ bi te mm, xam naa ne loolu may sant yàlla lu bare def nga ko ci say conseil si biir si say recommandation ci biir loo xam ne du ci biti lañ koy wax te lépp rek ngir ma mën a euh, liggéey ak jàmm jóge fii ak jàmm te loolu kon jar na sant yàlla. déglu ngeen kàddu yi nga xam ni jox joxe na ko fa rotal na ko fa sant kilifa yi ñaanal leen ci jàppale bi ñu ko jàppale wax li nga xam ne mooy mbébétam ci Sénégal ak li nga xam ni moom la bëgg bi mu paree xalifa bi delloo na ko kàddu sant na ko ñaanal na ko ci itte yi nga xam ne def na ko ci biir Tiwaawan ak ci umma islamique bépp bi mu paree ci loolu tamit mbokk yi dégg ngeen sëriñ Modou Sy Dabakh li nga xam ni moom la ay kàddu yi mu ko rotal ñaanal bi nga xam ni ñaanal nañ ko bi ñu jugee ci loolu nag mbokk yi yéen a ngi gis ba léegi Tiwaawan gis nga foo sànni mbàttu mu tag lu tax ndax taalibe yi dafa am benn message boo xam ni génn góoru yàlla bu ñuy wax Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu moo ko lancé ñuy wax rajulun wahid fii laylatin wahida bi risalatin wahida maanaam un homme une nuit un message loolu Seydil Hadji Malick moo ko waxoon mooy génn góoru yàlla boo xam ne amul lenn lu dul benn guddeem guddi googu mu am ci message bu muy sànni guddi googu nag li mu waxoon ne bu ma sañoon képp kuy sama njaboot ci àdduna nga ñëw fekkee déglu message boobu ba mu gàmmoo bés moom Seydil Hadji Malick mu xëy gis gàmmu gi guddi gàmmu mu woote ni ñëw bëriwuñu mu ne ah man ku toll ni Seydil Hadji Malick ma woote sama guddi di yarax te fu ne ci àdduna ku fi am xam-xam man maa la jàngal kon nag su may gàmmu fii ba góor saane ca jol ca ca jolof bëgg naa saay bu ma wootee rek ñëpp ñëw ndax génn góor yàlla boo xam ni amul lu dul benn guddi ndax yàlla moo ma dénk doomu aadama yi li mu waxoon wa taalimuhum fardun walaw bi ijaara bul yàlla dénkee ay nit danga leen a war a jàngal xam-xam bu fekkente ni sax amoo ko nga dem loué koo xamante ni moom ngay fay mu mu jàngal leen moom nag message yonent bi sallallahu alayhi war na koo transmettre taalibe yi xëy na fi at fi taalibe yëpp nekk ci ay gox yu fasantikoo ci Sénégal mënuñoo ñëwandoo benn bis wala mënuñu di ñëw chaque jour wër ko ndax ndax ndax jot gi mayewu ko ak soriwaay waaye nag mu ne su ma sañoon bu at mi demee saay bu yàlla dogalee ñu toll tombe ak guddi gane àdduna yonent bi sallallahu ñu daje fa fàttalente ay enseignement ay njàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mo waral nak mu wote ni ala azimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun naxwal xaraami xudulu ma moo ne maa ngi leen di woo ngeen màggal ganek guddik ganek àdduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye nag bu fekkente ni bàkkaar lalu ko dafa joxe garantie moom Cheikh Alhaji Malick radiallahu taala anhu loolu waral gis ngeen nit ñi fu ne nit bàyyoo bàyyi ko na ko ci biir Sénégal ci gox goxu Sénégal yëpp waaye ci sous région bi waaye ci Afrique gépp waaye nag ci Europe Amérique continent yi nga xam ne am na yëpp mbokk yi gis ngeen ay nit yu bàyyi ko foofu ñëw ci ci ci gàmmu gi xoolal lii rek gis ngeen image yi ni mu toll da ngay sa foos da ngay xool ba à perte de vue ba sa fa bët yam yaa ngi gis doomu aadama yi ñu ngi buuxante ngir ñëw. ziar si ngir ñëw tëbb si jàngat ay enseignement gisaat seen ay kilifa tëbbuwaat ci ay leer loolu moom waral taalibe yi ñëw gis ngeen loolu mbokku taalibe yaa ngi noonu ñëw ci ki nga xamante ni moom mooy sëriñ Maodo si Dabakh Cheikh Alhaaji Malick si bu suñu maam Cheikh Alhaaji Abdou Aziz Dabakh radiallahu taal anhu yéen a gis sëriñ Maodo si noonee nga xam ni fu ne taalibe jóge na fa gis ngeen fii mbooloo mi nu ñu toll ñu wër sëriñ Maodo si Dabakh ñëw indil ko seen ziar indil ko seen kóllëre feddaliwaat seen kóllëre seen wekkuwaat ci moom ngir mu wone leen nag yóbbu leen ci borom bi Seydi Haaj Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir mu yóbbu leen gis nga ñëw ci moom jokkuwaat ci moom ngir mu yóbbu leen ci borom bi subhaanahu wa taala ci yoonu Maulana Cheikh radiallahu anhu waaye ci njàngale maamam di turandoom Cheikh Al Hadj Malick Serigne Maodo si mi ngi noonu macha allah ñépp sopp ko ci mbaax gi ci dal gi. ci xorma bi nga xam ni am na ko ci doomu aadama ci sopp bi nga xam ni sëriñ Mor Sida Bax sopp na ko doomu aadama yi waaye doomu aadama yi ñëpp gis nga boo gisee nit ñi ni ñu toogee nga xam ni ñëpp delloo nañ ko boobu la cofeel fa tabaarakallaahu mu toog fii recevoir njaboot di leen dénk ay ay ndénkaane di leen fàttali ban yoon la ñu war a mën a dem lañ ban yoon la ñu war a mën a jaar pour egg seen borom gis ngeen ci wetam docteur Seyid Pape Mokhtar Kébé moom it fa tabarakallahu di nit koo xam ne ñëpp sopp nañ ko ñëpp xormal nañ ko moom mu jottali Serigne Maodo comme ni mu ko doon defee ci wetu way juuru Serigne Maodo di Cheikh El Hadj Abdou Aziz Dabakh nii la maam Abdou daan toogee di recevoir Serigne Mo Serigne Pape Mokhtar Kébé docteur toog ci wetam di ko jottali fa tabarakallahu continuer mission boobu ci Serigne Maodo si Dabakh yéen a ngi gis ci délégation bi ak mbooloo yu al oustaz Alioune Sall di boroom xam-xam di ko xam ne ñëpp ràññee nañ ko ci xam ci mën a jàngaleem ak ci tabaarakallaahu euh, respet boo xamante ni fa tabaarakallaahu am na ko ci kilifa yi gis nga ñëpp sopp ko moom it fa tabaarakallaahu Oustaz Alioune Sall Serigne Maodo teg ko ci wetam jox ko kàddu yi fa tabaarakallaahu moom it muy wax cofeelam ci Serigne Maodo di wax tamit fa tabaarakallaahu gis nga euh, bëggeel ak ñëpp lu fonkeel gi nga xam ne ñëpp fonk nañ ko Serigne moodo si dabba waaye fa tabaarakallaahu ñëwaat déglu yéen a ngi gis mbokku taalibe yi ñu ngi noonu Euh, ñëw ci ëttu Serigne Modou Sy Dabakh ngir fa tabaarakallaahu jëlaat ay enseignements. loolu moom moo waral tam gis nga cellule Zawiya Tijaniya bi nga xamante ni ci ndigalu ci njiitalu Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amin di doom ci Serigne Abdoul Aziz Al Amin nga xam ni moom moo jiite lépp lu aju ci wàllu communication ci gàmmu Tiwaawan teg ko ci cellule Zawiya Tidiane ñu organisé woon symposium boobu nga xam ne dañ koy def bisu noppalu bu jot euh, ci atu gàmm yi gis ngeen symposium bi gis nga ni ko defee ren gis ngeen Serigne Abdoul Hamid Sy al amin mi ngi noonu di yëkkati kàddu coordonné liggéey boobu nga xamante ni euh, fii fii ñu toog nii ay boromi xam-xam ñoo fi nekk ay professeur ay dakatir ay docteur ñoom ñoo nekk fii ku ci nekk mu am benn thème boo xamante ni cellule bi jox na la ko nga traité ko jàngalewaat ko mu delluwaat ci enseignement wu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax Cheikh Alhaji Malick li mu waxoon rek mu ne lépp loo xam ne def naa ko rek li ma ci yéene mooy roy sunna sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga gis foofu ñi ñi nga xam ne ñoo fi toog di ay njaboot ci kër Seydil Haaji Malick radiyallahu anhu di ñi nga xam ni kër gi moo leen yabal ñuy dem ci ay barab di fa jàngale di fa joxe ay xam-xam ngeen gis loolu ñoo ñuy toog fa tabarakallahu ñu invité len chaque année bu jot dina am gis ngeen docteur Abdou mbeng mi ngi ni tok di borom xam-xam di gëstukat fa tabarakallahu moom def na fa waxtan fa tabarakallahu yeneen yi borom xam-xam at mu jot dinañ am ñu ñuy invité ñu ñëw tok serigne Ahmed sara ngi nonu di borom xam-xam di sët ci Seydil haj malik radiyallahu anhu nek fële ci luga fa tabarakallahu def na fa cour yu ama am solo fa danaka daanaka daal lii li nga xamni mom la cheikh alxaaji malik radiyallahu anhu don jàngale fexe dal li nga xamné moy message yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mu egg ci talibé yi bu ngeen gisee image yoyu mo li ñuy wan ñu ngi ci cérémonie officielle bi nga xamante ni gis ngeen délégation marocaine bi mu ngi noonu fa tabarakallah ambassadeur Maroc ba ngi nonu di Ahmed Nasri ànd ak ñi nga xamante ni la sa majesté le roi Mohammed Sisi yabal ñu ñëw téwal ko ci cérémonie officielle bi nga xamni bis bi waxtu bi jotaay bi ci la serigne Babacar Sy Mansour xalif général di Tidiane di lancer message am waaye tamit ci lay tertu ay ganam yi nga xamanteni ñoo jóge ci gouvernement bi gis ngeen délégation gouvernement bi ñu ngi nonu tok le ministre de l'intérieur Antoine Félix diom jité ko ànd ak ministre yu bare bëri fa tabarakallah ñi ñew téwal ci son excellence waye téwal fi état sénégalaise ci bis bi nga xamni moy bisu gamu gi yéen ngi gis fa tabarakallahu kilifa yi ñu ngi noonu Serigne Mansour Sy Dabakh di doomu ci suñu mam Cheikh El Abdou Aziz Dabakh mom la khalifa bi yebal keroog mu ñëw tok teewal ko fofu fa tabarakallahu gis ngeen mu ànd ak ay rakam Serigne babakar si bu Serigne abdou Aziz Al Amin ñu ngi fofu teew yéen ngi gis njabar gogu Serigne Sidi Ahmed si Al Amin Serigne Habib si bu Serigne Mansour ak Serigne Habib si bu khalifa bi no Cheikh Tidiane Tall gis ngeen oustad aliou Sall ngi noonu gis ngeen. Euh, njabootu maam borom Touba ñu ngi noonu toog di doom ci sëriñ Abdou Lahad Mbacke mi ngi sëriñ Baara Lahad moom la sëriñ Mountakha Mbacke Bachir yebal mu teewal ko ci jataay boobu fa tabarakallahu gis ngeen ambassadeur yaa ngi noonu mbokk yi ñu ngi ñëw fépp ci àdduna bi rek Ahmed Nasr yaa ngi noonu di ambassadeur wu Sénégal ca Maroc fa tabarakallahu euh, ambassadeur yi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen réew ñoom ñëpp ñëw nañu teewal seen ay réew ndax relation bi nga xam le Sénégal am na ko waaye am na ko ak dëkk yooyu rawatina Maroc relation bi nga ni Sénégal ak Maroc ndax li koy gën a la tijania bi nga am Sénégal nga xam ne tey ñoo wax Sénégal. loolu moo le ministre monsieur Antoine Diom moom it indi kaddu président de la République joxe fa yu ama am solo waaye ba mu paree ñu déglu sëriñ Mansour si bu sëriñ Abdoul Aziz si daf baax radiyallahu anhu mu tontu ko ci kàddu yu rafet kàddu yu teey kàddu yu dal yu teg ci xam-xam wax na fa anglais wax fa arab wax fa français taalibe yépp kontaan fa tabarakallahu kon mbokk yi ñu dégtal leen cérémonie officielle bi ngeen déglu la li nga xam ni moo fa rot ci ay kàddu ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنها وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم كيف بيبغي جوخ كادو موي كان موي كي خامني ان 1960 ان اون جور سير دي امسو اموك او مينيستير دي لانتيريور بور لا غاب دي تواور موكو ديف كي بيبغي جوخ كادو Ah, c'est le ministre de l'Intérieur, représentant le gardien de la Constitution, le président de l'Espoir, l'homme des grands projets de l'État. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Aj ah, Mansour. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul huqdatan min lisaani yafqahu xawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ ma Mouhamadou Mansour Sy Dabakh mi kilifa jataay bi njiite njabootu Seydi Hadji Malik Si, représenté Khalife général des Tidianes Serigne Babacar Si Mansour yow ak sa ay rak ak sa ay doom maa ngi bigana nuyu bi bàyyee ko son excellence monsieur le président de la république Macky Sall di ko teg ci sa loxo ngir nga jotal ko ko Serigne Babacar si Mansour. biñu bay président wax nañu ni nañu ndokkeel Serigne bi ci bis bu mag bi bis bu tedd bi ñewon na fi waxal ko bopam bi gàmmu gi ñëwee tamit ci bis bi nga xamante ni moo dëppook moom mu yabalaat ñu ndax yitte ju kawe waaye ni mu téye Tiwaawan ak li dox diggam ak sëriñ bi ak njabootu Seydi Aji si yépp mu ngi ndokkeel sëriñ bi mi ngi koy ziyaara mi ngi ñu wax tamit ñu bokk ak yenn bis bi ci lépp boo demee ci sooratul ahzab yàlla daf koy wax da yàlla moo ca nan inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha allazina amano sallu alayhi wa sallimu taslima kon ki yàlla ak ay malaykam julli ci moom ni yenn nit ñi julli leen te sëlmal ci moom buñ ko wooteelee gàmmu war na moo tax Seydi Aji Malick si yàlla nañu ko yàlla fayal woykat ba da caa teg ni góor googu kenn du moom jëfal nga yàlla sa boroom wax nga yoneen lu ñépp yéem kon Seydi aji si, si radiyallahu taala anu sen jangale ak sen gis-gis bu sore ak sen hikma mo waral li tay ndax daño feñ ci jamono bu jafé waye sen gis-gis ak niñu mëne organiser aduna ñu jël gamu transformer ko en université di ci wat jikko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak doxalinam di dimbali taalibe yi ñuy ñëw di ci am bind yu tooy léegi rek amaat naa bind bu tooy bi ñu nekkee ci réception bi dama ñëw di waxtaan ak euh, Serigne Mouhamadou Mansour ci benn xadis ma laaj ko ngir mu leeral ma mu leeral ma ko ba noppi waaye jàngalaat ma beneen jàngal ci leeral bi dal ni oustaz Pape Makhtar Kébé ana nga docteur ni ko maa ngi nii mu woo docteur mu ñëw mu ni ko lii de la ma ministre doon laaj ma leeral ko ko ndax noonu la demee ndax doo mottali wala ndax doo ma ci euh, gën a leeral oustaz Pape Makhtar jaar fa mu jaaroon muy leçon wu humilité kon li ñu soxal Sénégal soxol ko ndaw ñi te dëppoo ak thème bi ngeen retenir ren ci gamu bi vers la guidance du prophète c'est vers la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous orientons les générations futures njàngale yu mel nonu ak daje yu mel ni. ku nek war nga ñew lu mu néew néew néew nga gor gor lu ba def touti recherche partagé ko ak nit ñi bo gagé ñu gàgganti la li ma wax légui djubluuma ci lenn ludul wax ci seen kanam ngir bu ma gàggee ngeen gàgganti ma président de la république son excellence Macky Sall diirub mu nekk fii ci boppu réew mi ku ne xam na ni kër diine daf ko soxal démb ca Kaolack dafa am ci benn kër diine bu ñu dugg kenn ci porte parole yi am lu mu wax lu am solo mu ni ko booy dimbali diine naka ngay def danga leen di tabaxal fu ñuy jaamoo yàlla da nga leen di tabaxal kër gan fu ñuy recevoir da ngay xool ña nekk ca biir communauté bi nga xool noo leen di jàppale ci seen liggéey waaye noo leen di jàppale ci recrutement mu ni ko fànn buñ ci xool rek ci tabax ci wàllu dëkk yi ci jàmbal ci jàppale ci ni ñu war a wutee xam-xam ak ci niñ leen war a sax accompagner ba bu ñuy dem bitim réew ñu amee ko gënin gi rafeti amin loolu yëpp yaa ngi ci kon président ku ne xam na fi mu teg diine te ku nekk xam na diine rôle bi muy joué ci Sénégal dafa am ay menaces yu am yu jëm ci ñun ni ñu xamee islam muy islam confrérique am ñuy toog di ŋaññi këru diine yi di ŋaññi ñi ko sos démb bi ñu demee Kaolack ci benn waxtaan may fàttali nii këru diine yi ñi ko sos ak ñi koy doxal tey yore ndono yi puso bi réerul ci seen loxo ñu yore ko yorin wu rafet ba tey liñ fi gis nii di ko firndéel bu bu ñu amul woon senegal kon lislaam fii mu toll nii tey du fi toll te bu ñu amul woon Sénégal ni ñuy téyee diine ak ni ñuy taxawoo diine ak jàmm ji am suñu diggante ak compréhension bi ñu ko amee du fi kooku duñ ko mën a dundee noonu kon devoir la ci état mais devoir la ci sénégalais bu nekk nga défendre sa gëm-gëm ci xam-xam mais nga defendre ko aussi ci dogu ak ci taxaw kon këru diine yi damay profité waat ci yónni bi ñu président de la république yónni fii pour di leen di wax jërëjëf te fi ngeen nekk foofu la président nag sëriñ bi dafa am ñaari mbir yu mu def yo xamni ku diin ku def ma ci citer ñaar dafa instituer grand prix international du président de la république pour le récital du coran récemment la ko institué ndax fonk fonk ak fonk fonk dafa cadeau fan yi euh, Arabie Saoudite bimu Arabie Saoudite dem Medinatul Munawara fekk nañ son excellence Bataille umra muy euh, excellence Cheikh Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Dabakh bimu mu Allez ci musée wu bi alayhi salatu wassalam gis lañ fa def gis nañ fay gindiko, ci jar jar bi ak même instrument yum don utiliser ñu exposé ko fof président ni li bëggal nako sama Sénégal mu dem wax mu dem ci ak buur bi bi nangul koko, ko ko ak université bële ca Caire di Al Azhar ni leen yéen yéenay maître d'ouvrage délégué donc le royaume d'Arabie saoudite dafa jël benn professeur Zawjat fan yi sax mi ngi fi délégation démb ci le premier conteneur yi exi ba ñu génne ko te tàmbali nañ musée bi le président daf ma wax ni ma loolu moom sa sasu bopp la avant février bëgg naa ko inaugurer kon loolu moo doon message bi loolu lañ bëggoon partager ak yéen di ñaan sëriñ bi ñaanal Sénégal Yalla saxal fi jàmm Yalla def ci nawet bi mu barkel. ginnaaw bi ñu ñorlé. Yalla def sutura ci Sénégal yalla def ni sen wajuru wu baax wi yéen ñaar ko ñaané fi ci Sénégal yalla na yàlla xol yi mu am nak lumay bi yoon ci sama bop di ñaan ngeen ñaanal son excellence président de la république Macky Sall fu mu jublu yalla na fa yiwu yalla jitu di jay Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam wa salaamu wa rahmatullah jërëjëf wax ji rafet na xam nga ni sax ñi toog ñëpp kontaan nañu waaye musée boobu yan nag ko an inauguré ak le chef de l'État le gardien de la constitution mu am ak le premier ministre Seydi Boubacar Sy xalif général Tijani fekk ko comme ni ñu koy ñaanale jumaa maamam jii xam ne maamam a ko sampaloon sunu maam Cheikh Cheikh Seydi El Hadji Malick moo ko sampaloon sunu wa taala mu inauguré ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di wuutu maak sama mbokk yi ma àndal ñun ñëpp ñuy njabootu Cheikh Seydi El Hadji ku sant si ak ku santul si ñun ñëpp ñuy njaboot ci Cheikh Seydi Aboubacar bi nga xam ni moo fi wuutu Cheikh El Hadji Malick radiallahu anhu ak mag ju baax ñi mu àndaloon موفي في ووتو سيدي احمد سي بايام اك تروندوم بايام شيخ سيدي ابو بكر سي سونو سيرين اك بايام دي سما تروندو دي تروندو شيخ الحاج منصور مباي مو شيخ الحاج محمد المنصور بالقومي اك بايام شيخ الحاج محمد الحبيب سي اك بايام شيخ الحاج عبد العزيز سي اك ماغام يو باخ ييب سيغ مصطفى سي جميل سيرين محمد المنصور سي بروم دار سيرين شيخ تيجان سي المكتوم سيرين عبد العزيز الامين سيرين محمد الحبيب moom Serigne Babacar Sy Serigne Sidi Serigne Sidi Ahmed Serigne Abdoul Aziz Alamine wax naa ko ak Serigne Sidi Ahmed Sy ibnu Cheikh El Khalifa ak Serigne Papa Malick Sy ibnu Cheikh El Khalifa ak seen jigéen ya ñu bokkal liggéey bi ak seen bàjjen ya ña ca dem ñëpp yal na leen yàlla yërëm Serigne Babacar nag mi ngi feeñ yal na yàlla guddal fanam may ko wér ak ñun ñëpp dañ fi nekkandi ba ca kanam yal na yàgg mi ngi ànd ak yéen ak ñun ak mboolem njabootu xadra bi ak diine ji. mook ko rakkam ju baax ji sës ci moom rek di soppeem ji xaritam di Cheikh El Hadj si Sy Maodo ibnu Cheikh xaaj Hadj Abdoul Aziz suñu sëriñ mook ñoom ñaar ak seen rak sëriñ Babacar si Abdoul Aziz di suñu di sama sëriñ di sama kilifa maak sama rakk yi ak suñu doom yi li tax ñuy wax ànd ceeg xadra bi mooy sëriñ bi nee na mu ngi gërëm yàlla te nañ ko gërëmle yàlla ci lii nga xam ni ah, ku iñaanul ne yàlla ak diw te diw momum wax la ci rafet son excellence monsieur le président de la république Hadji Macky Sall mi nga xamni ci son excellence Amadou Ba premier ministre ministre yu tedd yi Antoine Félix Abdoulaye ministre de l'Intérieur, sa sa collègue yu président

dafa bokk ci état bi ci ay démembrement ci service yu wuute ci ay spécialité ak ay fonction ak ay min ak ay mission yoo xam ni lu ñu bokk lu ñu bëgg mu taxaw il faut ñoom ñu bokk ci nekk ci seen wet di leen jàppale jàppale président ñooñu ñëpp nag jamono ji xam na ba mën mënuñu tudd ñoom ñëpp seen tur waaye ah, sëñ Babacar moom su la ngay ànd ak rakkam yeeg doomam yeeg sëtam yeeg jarbaatam yeeg góor ak jigéen mag ak ndaw ak njabootu xadra bi di gërëm président di gërëm gouvernement am yëpp di gërëm premier ministre ak yéen ñëpp na yow mi nga xam ni toujours yaa ngi dem di dellu si ànd ak ministre yu tedd yi nga xam ni yaa ngi ànd ak ñoom tey ah loolu nag noonu lañ cay jotale ngërëmu Serigne Babacar si ci Sa Majesté le roi Mohamed VI ci délégation bu forte bi mu fi yebal jox leen avion spécial pour ñu ñëw noonu la gërëmee itam l'ensemble du corps diplomatique accrédité au Sénégal muy ambassadeur yi fi nekk nonu la gëreme tout d'abord sax mbolé mbokam ju tedd yi nga xamni ñu ngi ci diine ji jité ko ak tariqa yi jité len muy xalifa tariqa yépp ak fuñu mëna bok ak fuñu ñu joggé sank Cheikh Abdoul Hamid si tuduna sen tour tur lim na leen ci anam bu rafet tabarakallah ak seigne mohammed Moustapha si ñom ñëpp ñuy njaboot ci seigne Babacar mais muy seen rakk wayjur Cheikh Seydi Abdoul Aziz Al Amin allah anhu lolu tam nga ñëw gëna a feddali kàddu yu rafet yi ànd ci Euh, ki nga xam ni moo jokkale yooyu pàcc muy Cheikh El Hadj Mouhamadul su mbay mu baax mi yàlla na fi yàgg te wér di gën a leeral nit ñi di gën a gindi nit ñi moom itam ci wetu mbokk mi doomu turandoom di sëñ Babacar si Mansour na mu ko doon defee te seen mag yu baax ya tabaarakallah noonu la ñuy gërëmee nag mbooleem mbokk taalibe yi muqaddam yi imaam yi euh, imaamu daara yi ak jàngalekat yi ak képp koo xam ni yaa ngi nokkee ci kaw suuf te am cofeel ci Cheikh Al Hadji Malick ak ci njabootam ak ci xadraam ñi ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew ñoo ci bokk yam ñëpp a ngi taxaw taxawaay bu rafet yàlla na leen yàlla fay di leen gërëm moom xalifa bi ci jumaa ji nga xam ne yéen ñëpp seen ñaq a ngi ci seen ndimbal a ngi ci seen teraanga a ngi ci yàlla na leen yàlla fay ak képp ku ci dugal yéeneem ak yitteem tabaarakallahu loolu moom laa doon wax ci ñi nga xam ne ñooñu bokk ñoom la ñu bokkal làngu réew mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waa mbokk yi gis ngeen ginnaaw bu ñu jógee ci cérémonie officielle bi gis ngeen ministre de l' intérieur noonu muy saaf noonu mu doon saafonte ak Serigne Mansour Dabakh ci saasa nag mbokk yi ñu ànd ak yéen ci fi ñuy wax saanu takkusaanu jamil takkusaanu jamil nag mbokk yi xam ngeen ni Tiwaawan taalibe yi ñëpp kenn ku ci nekk rek boo jógee koo fa nga nekk am na kër boo xam ne fa ngay wàcce say bagage ñii nag mooy ñi nga xam ne ñooy njabootu Serigne Mouhamadul Moustapha Sy Jamil bi nga xam ne mooy taawu cheikhul xalifa Serigne Babacar Sy radiallahu anhu yàlla yóbbu woon ko Dakar mu nekkoon Fass ba tey mausoleem mi ngi foofu fas ay njabootam nag at mu jot ñoom it ci biir Tiwaawan seen taxawaay seen pas-pas seen yar seen dévouement dina leen mu leen yóbbu at mu jot gis ngeen mu am benn takkusaan boo xam ne bu ñu jógee ci cérémonie officielle bi rek daañ daje fii tuddee ko takkusaanu Jamil takkusaanu Jamil nag ki nga xam ne moo ko jiite mooy Serigne Mouhamadul Mansour si Jamil di taawu sëriñ Moustapha si Jamil fa tabarakallah ànd ak ay rakkam képp kuy njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha si Jamil ànd nga nekk ci ginnaaw Serigne Mansour Jamil ñëw teew kàddu yi am na ñu ko fi jël ci njaboot gi taalibe yi jël kàddu waaye bi ñu paree ci loolu Serigne Mouhamadul Mansour si Jamil jox leen ay orientation ay fàttali fàttaliwaat leen seen borom. jàngal joxaat leen ay message ci njàngalewu yonent bi sallallahu alayhi ak lan la Cheikh Alhaji santaane kilifa bu toogee ci ay taalibeem mu wax leen ko ci xam-xam loo xamante ni xam-xam lay aju loo xam ni yar lay aju loo xam ci jukko lay aju mu bàyyi ko ci enseignement wu yonent bi sallallahu waaye jaar ci njàngalinu maam Cheikh Seydi Alhaji Malick radiyallahu anhu loolu ngeen gis njaboot gi gis ngeen fii foo sànni mbàtt mu tak ñëpp ñëw képp koo xam ni yaa ngi yaakaar Serigne Ma Serigne Mouhamadul Moustapha Sy Djamil aju tey ci Serigne Mansour Djamil ak njabootu Serigne Moustapha Sy Djamil bàyyi koo nga fa nga nekk gis ngeen Serigne Ahmada si Djamil mi ngi noonu toog fa tabaarakallahu ak njaboot gi yëpp taalibe yaa ngi noonu mbokk yi borom xam-xam yaa ngi noonu mbokk yi muxaddam yaa ngi noonu mbokk yi ñu ñëw ziar si Serigne Mansour déglu ko mu jox leen ay orientation comme ni ñu ko waxee fa tabaarakallahu loolu dafa aju rek ci li nga xamante ni moom mooy diggante taalibe ak sëriñ kër Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu mbokk yi loolu la Mamadou jàngale te loolu la ñuy doxal maanaam njaboot gi ñëw set ci seen kilifa mu fàttaliwaat leen loo xam ni message la boo xam ne bu ñu ko jëlee moom la ñu jëfandikoo ba gàmmu déwén yàlla nañ ko fekkeek jàmm loolu moom moo waral tey ngeen gis njabootu Serigne Moustapha Sy Djamil yëpp ñëw toog fii ginnaaw ba ñu jógee ci cérémonie officielle ba ñu ñëw ànd ak Serigne Mansour Sy Djamil déglu ko serigne mansour si jamil mi ngi noonu di egsi ci tàkkusaanu jamil bi di saafonteeg njabot gi di saafonteeg taalibe yi taalibe tamit di saafonteeg mom mu fas yéene toog waxtaan ak yéen ñu deglu serigne mansour si jamil deglu tàkkusaanu jamil la nga xam ni moom la ñu leen fa dégtal mbokk yi jërë jamil yor na te muhammad ci lépp luy nuru mbaax Serigne Moustapha Serigne Moustapha Serigne Moustapha Serigne Moustapha ana soppi Seydil Jamil sigil na askanu Malik ibnu Usman Seydi Jamil jàppoon na kóllëre moom ci képp koo xam ne kii gëmoon na Serigne Babacar ci yoonu Tijaan sëriñ Moustapha fonk tariixa bi lool yëg ne mbayo yore woon sekkari xutbu bi fii jëwe tiijaan ku bëgg Seydil Jamil defal ni doon ne ko te sunu maam Maalik mi doon wasilaam bokkul ak sekkareem ci Cheikhu Tiijaan kuy sa baay ñu ne sëriñ Babacar sëriñ Amer Diop nee na mbay du moro السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما كان ما شاء الله نيلن لين زياره دي يكتي كادو كندي نديغال سنو سرين سنو كليفه دي شيخ سيد محمد المنصور mi nga xam ne mooy xalifa Seydi Aboubacar Sy di xalifa Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy radiallahu taala anhuma di xalifa Mame Malick Sall ridwanullahi alayhim ajmain ko nuyu ñi yëkkatee ci turu sunu sëriñ Cheikh Cheikh si Cheikh Omar Sy di leen nuyu di leen ziyaara di leen masaw di leen ndokkeel tabaarakallahu du nuyu mboolem kilifa yi nga xam ni ñom lañu andantel àndanteel to way aju ci kër gi allahu ala azimu leyla wilayat hisbatan iza lam yakun al haram udulu ala damani ala wawe azimoo magal len ñu Seydi hajma lan lañu magal màggal muy leylal wilaadati guddug juddug sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngir la hisbatan ngi sàkku tiyaba hisbatan ngi sàkku yu waye na iza lam yakun ndem nekul udul di jeng na wa haram jëm ci lu haram kon na li ñu wax rek ñiy gàmm ak ñiy ras dem bokkul kon nag fa tabaarakallaahu tey jii nag Cheikh Seydi Mouhamed Sa joxoon ñu ndigal tabaarakallaahu ñuy ñuy doxal bés bi ndax bés la boo xam ni def ci euh, li li war ci jaami yàlla yi fi ñëw mooy def lu yiw ak def lu yàlla gërëm ñaan yàlla rek yàlla na yàlla dolli sutura si bi fi xalifa bi nekkee ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko ndokkeel di ko jaajëfu di ko ñaanal yàlla yàlla dolli ko wér yàggal ko ci kanam njaboot liggéey bii mu naal jëmale ko ci liggéeyu maamam Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu woo ci Sénégal yëpp mu jumaa ji nga xam ne moom la ñuy liggéey yàlla na koy yàlla na ko ubbi àndate ko njaboot gi ñun julli fi ay at ay ati ati at mu ñu àndante ko moom ak rakam yu tedd yi sunu baay Seydi Hadji Malick Maodo ah, sunu baay sëñ Babacar si Abdou sunu baay sëñ Mansour si Daba ak seen i rakk ak seen i njaboot yëpp tabarakallahu ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñu ñu teewe ko at yu baree baree baree bare bare Seydi Hadji Malick sëñ Moussa dafa wax ni radiyallahu daayira mooy ñoritalu liggéeyu Seydi Hadji Malick Seydi Hadji Malick li mu liggéey ci àdduna li mu génn ci xam-xam li mu defar ci ay nit li mu sant ci ay daara li mu diggee ci ay juma ak fu mu jaar yëpp sëñ Moustapha nee na daayira mooy ñoritalu liggéeyu Seydi Hadji Malick kon ñu xam ne daayira tuutiwul waaye dafa mel ni dañ koo banaliser dañ koo euh, pervertir ba nga xam ne rôle bi mu waroon jouer ak moteur bu wara nek le développement daayira bobu amatuñ ko ci kon dafa jar nek kon ñu delu ci wat am orientation yo xam dañuy jëmele ci ni ñu fexe ba daayira mën nek un moteur de développement ba tax na sëñ Babacar si dafa daan wax ni al jamaatu rahmatun wa fil furqatu azab mbolo yërmande la takaliko mbugal la sëñ Babacar ni man day fi ma ko noonu aljamaatu mbooloo moo xam ni dañu ànd ci yene ànd ci julluway ànd ci pas-pas rahmatul luñ jëm danañ ko mën wal furqat na tàqalikoo ko ci yéene julaa ci pas azabu luñ jëm di ko mën mu daan wax mbooloo booloo mbooloo booloo mbooloo booloo kon nag nee na lu ñu bu ñu àndee ci yéene ànd ci jublaay ànd ci pas luñ jëm danañ ko mën mais est-ce que ñu ngi jéem te nit yàlla bu doon sëñ lu luñ jëm danañ ko mën suñu jéemee danañ dañu am résultat te fi mu nekk nii macha allah li ma daan dégg ci njaboot ji di wax naan sëñ Abdou Aziz Al Amin radiyallahu taala daan na wax ni léegi bëggatuma kenn ku may indi problème li ma bëgg mooy ay résultat laa bëgg ay solution par rapport ak situation bi nga xam ne moom la ñu dund waaye suñ ko xam fu ñu war a jaar ci daayira ak ni ko mag ñi koo sobaare woon yaakaar naa ni mu ngi trouvé une benn solution par rapport ak situation de crise là parce que ñu am nañu euh, ressources humaines yi nga xam ni mo wara a tax ñu mën taxaw capitaliser lo xamni dañu danañu mën amorcer un développement pour le pays et pour même le monde entier. si turu sama sang yi ma daar si Hajj mari ak Cheikh Omar ak sëñ Ahmed da ak sen njaboot yi teew si tant bi ma ngi leen di nuyu. di leen ziyaara di leen masawu coono di leen wax wa kullu aamin wa antum bi xayrin insha allah si bés yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ma bëggoon rekk si bés bu tedd bi ñu fàttali ñi nga xam ni dañu dawlu

يلا دفع وحني أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطوافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب يلا نعم من لنخ نعم. ما يدين دوم آدم ويدين دوم نخ ما ما جلين يوب تكين دوكو كومانتي تسي أنا بقاو لا كايدري man su ma toogee si zawiye bi jàkk sañ Babacar dafa am lu nga xam ni dàkk yëg sa ay waajur yi la wóoroon ñoom sëñ Mansour ñoom sëñ Abdou ñoom ñëpp toog wóor la léegi nga dugg doo fa fekk kenn ma malik bi bika loolu tey am na ñu bare ñu teew fii walla ñu waroon teew fii yàlla jël na leen yóbbu yàlla ne nag man maa ko nga dund ba mu neex rekk ma ñëw jël la yóbbu kon fu laa bëgg dañu leen fàttaliku leen ci bés bu tedd bii ñaanal leen yàlla nandal leen ci dégg kaw sol ñom ñep yàlla na leen yalla xaré àjjana surtout poignée de talibé yi nekkoon si jumelage bi liggéey li ba mu agsi fii kii bi ñu koy commencé gannaaw sëñ Moustapha si benn koñ la won koñ koñ benn koñu tiwaawon la won waaye yàlla dafa wax ni shawirhum fil amri ñuy diisoo di diisoo di yaatal di diisoo di yaatal bi ñu jëkkee wax ni dañ ko jële si koñ bi yóbbu ko feneen ma leen ko su ko defee benn yoon doo leen doot leen ko bàyyeeti est-ce pare ngeen pour def ko ñu ni ma paree gun nan nekk ba déwoon ñu gën ko waajal ñu nekk ba déwoon ñu doo a koy waajal waaw

dafa am feebar bu nekk ci doomu Adama benn feebar bu graawa graawa graawa muy cofeel cofeel jooju nag benn garab la am mooy yëg waaw cofeel boobu ngeen wone si Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha tey wone ngeen ko si yëg bi ngeen yëg bés yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ni moom moo ko sumb di ko ba mu àgg fi mu àgg tey ma ngi nuyu ñëpp waaye Sidi Ahmed dafa wax benn affaire dafa wax ni ñu gëstu suñu gëstoo am ay résultat waaye dama gëstu te dama ñëw yéen ñëpp gis ngeen ma li ma daj temps yi lii may def nii sax mënuma ko sopp njaboot rek a tax ma ñëw te su ma jógee fii maa ngi jëm sa zawiya ba waaw dafa ni nanu gëstu man bi ma nekkee xale ba tey ma am benn problème sa maam sëñ Babacar dafa tagg yonent bi sallallahu alayhi wa wax benn wax bu nga xam ne bii li ma nekk Sorbonne yëpp loolu lay gëstu. سيادتي فكم بدت مرأة للبدر غراء حاز الوليد فريد فات هذا يتيم يتيم في سجل خيتك وحاز الوليد فريد فات والده اليتيم فيه أنباء هذا الوليد وليد فات والده هذا اليتيم يتيم فيه زمن بين في الأدلة تكفي زيادتي فكم بدت مدحة للبدر غراء هذا الوليد وليد الفات والدي هذا اليتيم يتيم في أمبا ألف هذا الوليد وليد الفات والد هذا اليتيم يتيم في أنبا فات والده وحز اليتيم يتيم في زمن بين فيه الأدلة تكفي من سيادته كم بدت مدحة للبدر غراء وفي أدلة تكفي لسيادته فكم بدت فكم بدت مدح للبدر غراء sëñ Babacar ne li ko yéem si àdduna mooy ñi ñu baax li wax si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bokk noog moom diine am na ñu wax lu ñaaw si yàlla wax lu ñaaw si yonent bi ba yàlla addu waaw ni ko wasbir ala ma yaquluuna wahjurhum hajran jamilan ذرني والمكذبين أولي النعم ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما mu ko na nga muñ de wax yi ñaaw yi bare na waaye bul dellu gannaaw de am na ñu nekkoon yonent comme yow ñu wax leen lu yees yooyu waaye musul dellu gannaaw kon nak bul delu gannaaw Muhammad zarni wal mukazzibina aw li ni'ma linaka naka de yàlla zarni wal mukazzibina aw li ni'ma yonent bi ñi taxaw naan da ngay katch ñi taxaw naan da ngay jabar teraanga bi gën rëy si àdduna ñoom laa ko defal nii ذرني والمكذبين أولي النعمة teraanga bi gën rëy si Quraysh c'est-à-dire yore caabi kaaba gi sunu maam sunu maam Ibrahima ba tey benn famille moo ko yore ñaari famille am te pourtant même famille bi ñoo taxaw ma yónni la loo wax ñu nii da ngay kàcc loo wax ñu nii da ngay jabaat wa mukazibina uli ni'ma xam oxymore c'est ben expression mu am la nature et le contraire de cette nature là ñu a ko oxymore uli ni'ma al mukazibina uli ni'ma omaylum qalila mu ka nak yow yonent bi sun la saga, la man la nu saga, man yalla. bi nga xamni man lañuy saaga waaye man am naa lu mu ko faje waaye ku mel ne sëñ Babacar xam-xamam yaatu na yaatu bu nga xam ne bii xam na ni am na ay sang yu nga xam ni bokk ndoog ñoom diine waaye lu rafet rek la ñuy wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam كم بدت مدحة للبر غراء allahu akbar gis nga xasida bi dem si ñaan ndigal si sëñ Mansour pour firi ko sëñ Mansour moo ma jàngal ba mu jeex def ko si ay kase bi mu ko jëkkee gis dama ñëw indi man ko papa pourquoi doo gàmmoo gàmmu gi doo gàmmoo xasida bi mu ni ma dam ka sañ dam ka ñeme mun ma loolu laa waxoon sa maam sëñ Babacar bi ma jàngalee xasida bi ba mu jeex te man rek la ko jàngal sëñ Mansour day wax de man ko pour pourquoi doo gàmmoo xasida bi mu ni ma dem ka sëñ te xalaat sa ëpp na ñu koy bàyyi waaye loolu sëñ Babacar wax ma commencé di wax sëñ Babacar ñan lay wax Quels sont ces gens qui n'ont pas la même religion que nous et qui disent les choses merveilleuses sur Seigneur وخطك هو سر هو نورنا هو أنا صفي هو سرنا هو نورنا هو شف المنصور جميل هو سرنا هو نورنا هو شف المنصور جميل هو سرنا هو نورنا Wakai mboki النور هو باهد وخدك هو سر واكاي مبكي gis ngeen jamin nga xamee ni jóge nañ foofu nag ci takkusaanu jamil takkusaanu seydi jamil ngeen ya farot si jamil fa mu joxe fa ay kàddu yu am solo gis nak nag mbokk yi taaliba yi ba léegi ñu ngi noonu bi ñu jógee ci takkusaanu jamil moy guddi gi nga xamne nak mom mo waral ñëpp ñëw moy guddi gi nga xamanteni mom la Cheikh Al Hadj malik radiyallahu anhu wote won ni ala azimu laylal wiladati hisbatan idha lam yakun naxwa alxaraami udulu waxaat batay ci cofeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mune kama wahabta lana tartiba siiratihi fa hab lana al iqtida yaa hadiyat tahimi ci cofeel la bo xam mam modou am nako ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxat waxaat ba tey moom Cheikh Alhaji Malick radiallahu anhu mu ne wa kullu ma afaaluhu nawaytu fihi uswatahu sallallahu alayhi mustafihi delluwaat waxaat ba tey ci njëriñu gàmm ak sopp gi mu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne wa mawliduhu bihi sharafun wa xiirun fa fi taazimi injaahu shujuni fa tabarakallahu Cheikh Alhaji Malick radiallahu anhu moom moo woote loolu abyaat yooyu nga xam ni wax nañ ko yooyu yëpp benn bu ci nekk Cheikh Alhaji Malick radiallahu anhu moom moo ko wax di wane cofeel bi mu am ci gane àdduna yonent bi sallallahu alayhi mbokk yi amul événement bu gën a màgg ci doomu aadama amul benn événement amul benn événement bu gën a rëy ci doomu aadama ci màggal guddi ki gën ci mbindeef yi koo xamante ni ni ko Serigne Mansour si da Serigne Mansour Sy borom daara ji radiyallahu anhu daan waxee naan ki ki nga ki tax nga ni xew bay xew fa tabarakallahu kooku war nga koo màggal ñu guddi gi nag ixtifaal la maanaam mbégte la ci ki nga xamante ni موم يالا سبحانه وتعالى taala dafa gàmm ci moom yàlla moo ni inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima mbokk yi yàlla moom moo wax yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne ko wa zakkirhum bi ayaamillah bisu yàlla yi da ko fàttali taalibe yi te bisu yàlla yi mbokk yi amul benn bis boo xamante ni moo ci gën a màgg bis bi nga xam ne fa la ci la ngën gane àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne mooy le sauveur de l'humanité nga xam ni borom bi subhaanahu wa taala sax dafa waat ci dundam xam nga yàlla subhaanahu wa taala ni mu toll suy waat ci dara la muy waat am na solo waaye yàlla waat ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko la amruka innahum la fi sakratihim yamahoon la amruka yàlla ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam giiñ naa ko sa dund kon dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi am na solo dund googu am solo ba nga xam ne yàlla wat na ci mais dund googu kañ la ko kañ la tàmbali mi ngi tàmbali bi yeneent bi gën a àdduna waaye lu yàlla waat loolu ba muy tàmbali ndax jot jot a màggal loolu moo waral Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu bàyyi bis yëpp jël bi su a àdduna yonent bi sallallahu alayhi ngir lan fàttale ci siira yonent bi sallallahu alayhi mooy jaar-jaaram ndax yàlla dafa wax daf ñu wax ni la laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy seen royuwaay mooy seen modèle gis nga boo xoolee aaya bi laqad kaana lakum fii rasulillahi yàlla mënoon naa wax rek laqad kaana lakum rasulullahi uswa xasana huwa xudwa huwa uswa d' accord aaya bi day jub waaye mu ne fii rasulillah fii boobu mu daf ñuy tegtal ne lépp loo xamante ni bépp instant ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun war nañ koo xam pour mën cee nekk royuwaay guddi googu nag moom la kilifa yi doon doon doon jàngale ngeen dem ci zawiya Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu guddi guddi guddi googu nga gis fa ki nga xam ni mooy le prince des poètes di Serigne si Sy Dabakh radiyallahu anhu mu def fa cours magistral boobee nga xam ni moom la ko moom dafa def ñu jóge fa dem ci zawiya sëñ Babacar Sy radiyallahu anhu ci jumaay sëñ Babacar ñu déglu njaboot ga nga xam ne ñoo fa nekk ci njiitalu Serigne Mansour Sy Jamil ànd ak rakkam sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si bu sëñ Mansour borom daara ji seen way jur Moulay Abdoul Aziz si bu suñu maam Habib si ñëw fa wéttali si leen fa tabaarakallaahu ñu nekk fa ak njabootu Cheikh Al Hadj Malick ci keppaaru sëriñ Mouhamadul Moustapha si al amin sëriñ Mouhamadul xabib si ak seen i mag ak seen i kon mbokk yi ñu dégtal leen li nga xam ni moom moo xew ci guddi gàmmu ga ci zawiya Cheikh Al Hadj Malick ci njiitalu sëriñ Moro si Dabba ak ci zawiya sëñ Babacar. ci njiitalu Serigne Mansour Sy Djamil ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Mansour من كل شدة إلهي بقطب العارفين إمامنا رجائي وغوثي لله الإله وسيلتي ختام النظام للولاية جملة بين تجد غفران من كل زلتي بين تجيب الموالق كلها رعايتنا التجاه من كل شدتي وكما اشتكي عند الإله زيارة زوايا ولكن العنان بقبضتي أنادي وألد النداء وأخل دار الدار يعطيني مرادي ورغبتي وما زلت أرجوها من الله وحده وإلا على الهيام مرارة عيشتي وحتى وأنت الوعد عندك صادق إجابة داعي لي اضطرار وذلة إلهي فاعف الوالدين ذنوبهم كذلك يا رحمن كل المشيقة كذلك إخواني إلهي جملة ومن ينتمي ربي إلى خير ملتي وأزكى صلاة الله ثم سلامه على خير خلق الله من خير ثنيتي مع الآل والأصحاب بما ذر الشارق وما قال إلهي لشدتي مع الأهل والأصحاب بهذا الرشاد وما قال داعي اليوم إلهي لشدتي mbokk waaw mbokk yi sëriñ bi dafa wax ne ginnaaw bu mu sante yàlla julli ci sayduna muhammad alayhi salatu wasalaam sang bu tedd bii nga xam ne moom la ñu jot na ci ay baratib ak ay darajaat yu kawe yoo xam ne du koo xam yàlla dafa ko solo to yónniwu ko du ko ñuy tudde waliyu garaat la boo xam ne moom rek la ko yàlla jagleel macha allah صلي ونسلم على أصحابه الأبرار نانا نيجي جولي دي سلم الإتم تصحابا بيباقي تتد الغر الميامين نيجي خمني فتبارك الله دانيو وقتل تيال باركل سين لب كما نصلي ونسلم على شيخنا التجاني القطب الأكبر والغوث الأشهر ممد كل أولياء الله تعالى من لدن في الصور إلى يوم القيامة نانا نيغي نيان إتم يالا دف تردي تي وليو يالا بومك بوب نغا خبني موم إتم مويت بومبولم أولياء الرحماني الشيخ نتجان الشريف رضي الله عنه وجز الله عن عن جدنا وشيخنا ووسيلتنا إلى ربنا الشيخ الحاج مالك نانا نيغي نيان يالا إتم مفايل نيو سنيو سرين كيغا خبني موي سنيو أجي يار دي سنيو وسيلة دي غورغو تيد غي تيد في دي مولانا الشيخ الحاج مالك عليه رضا العزيز المالك هذا التوسل الكبير الذي قرأه الآن أحبابنا وأولادنا ومشايخنا يمكنهم nee na tawassul bu tedd bi nga xam ne doomam yi di ay soppeem ah nee na bu ñu neexee sax ñu ne ay sëriñam ay sëriñam lañu bu ñu leen soobee jàng nañ ko muy fala budda min shakwa bi ñu doon jàng هذه الأبيات التي قالها الشيخ الحج مالك في حال فناء في الله وبالله ولله نانا توصل تد بيغا خمني سوني امام الشيخ سيد الحاج مالك موكو تاليف تبيم كوي تاليف جيخنا تك تي ديغنتي مك بروموم الى ان قال هل الدهر يعطيني مرادي ورغبتي نانا ميغ نانا واو نانا ميغي دم باي لاج ناندخ جامونو دا نما جوخ سما بغ بغ اك سما ييني اك سما ميبت باي نانا دا فا لاج واي لاج بوبو داي نانا نيكول لاجو كيسه يالا جوخ نكو كو با نوبي ما شاء الله ثم اننا ايها الاحباب لا يمكننا ان نتصور المراتب التي حازها العارف بالله الشيخ الحاج مالك بن عثمان وأبناؤه الكرام البررة الشيخ الخليفة سيدنا أبو بكر بن الشيخ الحاج مالك وإخوته الأبرار العارف العارفون بالله وأبدأ منهم أخاه الشيخ الحج محمد المنصور مجد الشيخ الحاج مالك وأخويهم الكريمين الفاضلين سيدي وشيخي الحاج محمد الحبيب سي نجد الشيخ الحاج مالك وإخوته وإخوتهم جميع وأخاهم جميعا نينا قرات garaat bu kawe يلا تكل نكو سنو مام شيخ سيد الحاج مالك رضي الله عنه Hadji Malick Sy radiyallahu di cheikhul khalifa sëriñ Babacar Sy radiallahu anhu ak mbokkam di rakkam di cheikh alxaaji al Mansour ak ñaari rakkam di mawlaana cheikh alxaaji Abdoul Aziz Dabakh ak seen rakk di mawlaana cheikh alxaaji al Habib Sy ak seen mbokk yëpp ba ci seen jigéen ñi sax ñoom ñëpp garaat yooyu yàlla ràng na leen ko laqad wallahi gashiyatni xaalatun من الأحوال الروحية التي لا أملك التعابير التي تناسبها والتي تتفق معها لأنها كلها من الروحانيات ومن المراتب والدرجات كما قلت آنفا نينا الحمد لله في mu toll di wax ak ñun mi ngi ci loo xamante ni bii xëy na làmmiñ sax lottu na ci melal ko ci ay yëg-yëgu biir yoo xam ne bii nit daf ciy jaar ci yenn jamono yi wa ma li ayuha al ahbab wal ixwan illa an axtatima hadihi al kalimata al wajizata nee na li mu bëgg a tëje kàddu gu gàtt gi muy yëkkati illa adaau tahiyati wa shukri wa duaa lakum jamian nee na mi ngi yëkkati kàddu nuyoo ak cant جمي كو ني في تيو نييب تي بارب بو سيل بي بسم الخليفه العام للطائفه للطريقه التيجانيه وجده الشيخ الحاج مالك بن عثمان السيد ابي بكر محمد المنصور انا مي نكوي ديف نا تي تورو ماغام سوبيم دي سيرن بابا بكر سي محمد المنصور دي خليفه جنرال دي تيجان مي نكوي ديف ايتام تي تورو مامام شيخ سيد الحاج مالك رضي الله عنه فالشيخ الحاج فالسيد ابو بكر محمد المنصور انا سرين ابو بكر محمد المنصور شيخي نانا موي سرينم خليفتنا نانا موي سونو خليفه وخليفه جدنا الشيخ نانا موي خليفه سونو مام شيخ سيد الحاج مالك رضي الله عنه وهو من هو نانا موم داي موي موي تي خم خم فهما اك تي دغ ودرايه اك خم للحقيقه تي والو خم خم حقيقه الربانية لب لجم توال يالا حقائق مبولم حقائق ينغ خمني المحمدية خمني دفاي أجوتي حقائق محمدية تجانية أكلي أجوتي شيخ نتجاني الشريف أكرم به نينا دال كاو تفتر دنغ نيال نكو أكرم أكرم ثم أكرم بشيري أبو بكر محمد المنصور نينا دال كاو تفتر عنغ منكو ييم ci serigne babakar mohamdoul mansour neena mom ci ci param ci loxom la yaroo fi ma fi عند الشيخ الحاج Cheikh Ndiaye Mabéye. nee na boobu ñu ngi nekk ci suñu wayjur wa Cheikh El Hadj Ahmed Cheikh Pape Cheikh Tidiane El Hadj Cheikh Ndiaye Mabéye. قيد حياة الشيخ الخليفة أبي بكر. nee na booba Sëriñ Babacar Si radiyallahu anhu mi ngi fi. وأخيه وصله مولاي الشيخ الحاج محمد المنصور. nee na rakkam ja di Cheikh El Hadj Mouhamadou Mansour boobu ñoom ñëpp ñu ngi fi. في الحقيقة. nee na ci dëgg-dëgg. لقد زادني فرحا وسرورا. nee na bokk na ci li dolli mbégteem ak أكثر مما نالني نينا لو أب تي لي مو أم السنة الماضية تي اد بيغا خامني مو باسي وون لحضوري نينا تي تيوك الشيخ الشيخ الحاج مالك نينا دومام جي دي شيخ الحاج مالك دي مام مالك دومو سرين الشيخ أحمد التجاني المكتوم رضي الله عنه وأخيه, وأخيه ابننا الحبيب nee itam ak mbok mbokam di rakam di domam ju mu sopp Seyid Abdourahman Seyid Abdourahman si ya marhaban bihima nee mi ngi len di tatagal bu baax a baax nee na kaw te fu tedd nga ñeel na len ala kulli xaal nee na ci waaw إنني لا أكاد أجد من الكلمات ما يعبر ما أعبر بها عن شعوري الآن الآن الآن الداخلي neena na yek ci biram danaka mënul am ay kàddu yo xamanteni bi wala ay bat yo xamne bi man na melal wala mu génne li yek ci biram walakin da'uni ayyuha al akhwat wal ahbab an aqul lakum innani na'ib نيابة خجلة لأنني لا أصل إلى مرتبتي ومقام نائب عن أخينا وحبيبنا وشيخنا وكلنا سيد أبو بكر محمد المنصور. nee مو في مو توك ميغي يكني magam la fi wuutu sëriñ Babacar si Mouhamadul Mansour xalifa bi waaye moom wóor na ko ne mënu koo wuutu ci barab bi wa kulli nee na moom mooy léppam wa laqad balaga min al maratibi ma la yumkinu ni duxulu fi tafsiliha nee na sëriñ nee na sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour yàlla teg na ko ci barab ak garaat yoo xamante ne bii kenn mënu ko kenn mënu ko wa astasmixuhu nee na أن أن يسمحني بالخوض في بعض جوانب مراتبه ودرجاته يعني لأنه من... لا يريد ذلك ولا ينتظر ذلك أن يصدر من أحد أنا يعني من كوي جيغلو koy كي في موي fii كي ماي يكو يالا yi ko yàlla defal ndax sëriñ Babacar ku nekk xam nga ne bëggul sax ku wax ci moom wala ku ko takkal benn garaat لأن سمته الذي يعرفه بها يعرفه يعرفه بها كل الأحباب والإخوان الجالسين بيننا هي تواضعه لأن جيكو بيغا خامني بي موم لاكو نييب خامي موي واتي سي سوف رك اك واتي لقد سالته يوما نانا امنا بن بس الله لاجكو ونحن نتكلم معه في عبر الهاتف نانا امنا بن بس وقتان دوخ سين ديغنتا سي تليفون وسالته شيخي وسيدي منكو يو سما سرين يو سما ما هي اسرع المراتب التي توصل العبد الى مولاه الى الى مولاه منكو سرين بي داما بغون nga wax ma yon yi gëna فضحك نينا سرين بي ري ضحكته التي اعرفها اعرفه بها نينا ري غو خامني موم خامناكو سي موم ياغ نكو غيس مو ديكو وقلت له سيدي انا كنت taaliban mu wax ko ne ko sëriñ bi man nekkoon na sa taalube inda jad inda amina cheikh alhaj cheikh ndiaye ma bey suñu wayjur wu tedd wa alhaji cheikh ndiaye ma bey wa in nasitu la ansa mu ne ko bu fekkente ne fàtte nga man fàtte ba alkayfiyat allati kunta tataamalu ma'i biha ci anam tawjihi suluki man anam bi nga xam ne bi moom nga doon jëflanteeg man ci yarma ak defar sama jikko hada daynu la yumkinu ni an أجازه لك فقال لي أنا أرى أن ذلك يكون في هذه الأمور الثلاثة التي أصفها لكم أو أقولها لكم منك لولو غي لاج يون يي غنا غاو بور اغ سي يالا مان كوي تانك سي نيات يي مالاي بيغا واخ التنزل سي نجهك موي واتش وعدم الغضب ci bi ci tegu mooy mooy tondiku mer ida waqa gadabun baynaka wa bayna ahadin min annaas fekkente ne bi mer dafa dox sa diggante kenn ci nit ñi wa in kaana algadabu qad sadara minhu fekkente ne bi mer mi ci moom la bàyyi ko xaawil an laa tanfaila bi hada algadab yow gaawal ba nga bañ a def infiaal ci la mu lay tontu an tarudda mithlahu itam nga delloo nga bañ ko delloo lu mel ne lam la def حيوي كذلك يا حاج مالك منكو جيمال باتاي يا حاج مالك ان تمثل الامر كليا لا خيون تي سين ديغنتي داغي فخه با فاتيكو بول كو تودتي بول كو واخاتي قال وقال لي هذه من مكارم الاخلاق المحمديه منكو لي ميغي بوكو تي جيكو يو تيد ييغا خامني موم لا سانغ بي رانغو عليه الصلاه والسلام وانا في هذا المجلس نانا موم تي جوتاي بي انا نائب عنه نانا سيرن بي خليفه بلا لا في ووتو كنت اعلم انني لا ابلغ مقامه نانا وور نكو ني موم اغول سي مقام سيرن بي واي تيرهول موم لا في توغال كن له من المحبه الصادقه الصافيه لله ولله بالله نانا ميغي دنتال سيرن بي تيوفال غو سيت غو دغو غو خامني يالا رك كولال ولكنه هو نانا واي موم اعطاني نانا جوخناكو السيد ابو بكر محمد محمد محمد خليفه بلاي واخ سيرن بابكر محمد المنصور ما لا استحقه لان لو خمني موم جابو نني يويوكو وانه يكن لي محبه خالصه صافيه لله تعالى تنين موم وور نكو ني سيرن بي تام تيوفل غو ملني جيمكو امبل غو سل تا دغو تي يالا موم لاكو سيرن بي امبل نحن لا ننسى المولد النبوي الاخير الذي حضره فيها حضر فيها والدنا وشيخنا العارف بالله الشيخ الحاج عبد العزيز ليله اتمام بردتي او ليله ختم بردتي nee na mi ngi naa fi zawi Cheikh Alhaji Abdoul Aziz nee na mi ngi fàttaliku at mi nga xam ne mooy at mi góor gi mujj teewe fii ak ñun gàmmu gi kàddu ya nga xam ne moom la yëkkati woon jëmee ko ci doomam di xalifa bi nee na baat yooyu ba léegi fàtte ko fàttewuñ ko qaala lana nahnu jamian arraja arraja arraja arraja an laa yuxaalifa ahadun minkum idna wa tawjih Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour mu ne bokk na ci li mu waxoon maa ngi leen di ñaan maa ngi leen di ñaan na ngeen fexe ba kédd ci yéen bu mu wuuteeg ndigalu serigne Babacar Mouhamadul Mansour wa in waqaa dhalika min ay waxidin minkum bu fekkente ne bi loolu xew na ci kenn ku mën a doon ci ñun sa sa yajidu ni dhalika nee na loolu dana ko metti mustaan dana dana ma metti loolu moom góor gi mooy wax mahzunan nee na dana def itam ma nekk ci tristesse li anna Ababacar Mouhamadul Mansour ndax serigne Babacar Mouhamadul Mansour wa ibnuna wa habibuna wa ibnu cheikhina góor góor gi mu ne suñu doom la suñu soppe la suñu doomu sëriñ la ñun ñëpp lidalika kuntu baada dalik bi ayam qad tawas qad dahabtu ilayhi wa nee na ba góor gi waxee loolu rek ay fan moom mu dem seeti ko wa madatu yadaya mu tàllal ay loxoom yadu wallaha li ndax sëriñ bi ñaanal ko wa li yusaamihani fi kulli ma sadara minni

والسلامة من كل مكروه يلا كو يلا إننا يلا كو يلا دولي ورس ما يكو جامو ما يكو توفيق يلا ما يكو يتم مصح دقر لولو مي نيان نيكو نيان نيب يلا نكو يلا بولي دفل وفي هذه وفي هذه الجلسة أو هذا المجلس الإسلامي الكبير لا يمكنني أن أصف مدى فرحي وسروري بحضور ابني الكريمين الشيخ الحاج مالك nee na fi mu toog nii man mënta melal mbég mi nga xamante ni bii yëg na ko ci teewaayu ñaari doomam yu tedd yi di sëriñ maam Malick si di doomu su magam di soppeem di xaritam di sëriñ Cheikh Tidiane si Al Maktoum ak rakkam ju tedd ji di Cheikh Abdourahmane si. jazakumullahu anna xayra. nee na mi ngi ñaanal ñaari doom doomam yi yal na yàlla fay leen yiw. xuduruhuma baynana. nee na seen teewaay ci suñu di ci nee na dafay dëgëral benn famille bi wa tamasuka abnaiha wa afradiha ak doomu famille bi ànd joxante loxo nekk benn wa antum jamian li annana kullu li annana kullana abnau li cheikh alhaj malik nee na waxul ñu sant si rek de waaye ñi fi teew ñëpp la wax ndax ñi fi teew ñëpp doom yi sëti mam cheikh alhaj malik la ñu min janabil xalifati ammihim wa habibim sidi aboubacar mansour xaadisu shukri وعلت التقدير ننا تي خليفه بي ميغي سانت تيوايو نياري دومي دومم يو فتبارك الله اك دي لن نيانال اك ني ني كان لي ان ونهي كلمتي نينا فكنتي نبي دا فا بغ اغال يكاد يي مو يكتي ما يتلخص ننا لول من من نانكو ريزومي في كلمه واحده او اثنين ان شئتم تي بن بات ولا نياري بات اثنتين ان شاء الله ولا نياري بات وهو انا بات يوي موي ان نتوحد موي نانيو اند نيك بن نانيو جوبو جو جامونتي سي سونو بير يحب احدنا او بعضنا لاخيه المسلم المؤمن الذي يلقاه في حضر الشيخ الحاج مالك ان يحبه اكثر من حبه اياه نانا كو نيك سي نون كو داجال سي حضر مام الشيخ سيد الحاج مالك بي جابل نسا مبوك لا nga bëgg ko ni nga bëggee sa bopp wala cofeel gu ëpp gi nga bëgg sa bopp wa nataraxamu nee na bu ko defee ñu def taraxum ala ruuxi ixwatina alkiram alabrar ñu ñaanal suñu mbokk yu tedd yu baax yi nga xam ne الشيخ سيدي محمد المصطفى سيدي جميل نجيتل تي سيدي محمد المصطفى سيدي جميل ثم اخوه الشيخ الحاج محمد المنصور ني تك تي مبوكم بروم دارا جي سيدي محمد المنصور سي والشيخ السيدي احمد التجاني ني تك سي سن رك سيرين Cheikh احمد التجاني سي المكتوم والى روح اخيهم جميعا السيد الشيخ عبد العزيز الأمين سن رك سيرين عبد العزيز سي الأمين والشيخ السيد أخينا وحبيبنا وحبيب الكل كل من رآه أحبه السيد الحاج مالك سي ابن الشيخ الخليفة سن رك جيغا تك بير برصب غاكو ميسرين باب مالكسي بشيخ الخليفة كان لي به علاقة متينة قيد حياة السيد أبو بكر نانا يالا دفلنا بولا وون نيونيك اي مبوك با نوبي اي بوم يو رافيت يو دغر بولا لين تي دوندو سين ويجور سيرن بابا كاس رضي الله عنه السيد اخي وحبيبي الشيخ محمد المصطفى سي الذي كان آه، يدير قراءة البردة النبوية نانا اك سين مبوك دي باب مصطفى سي mi nga xam ne fan yii fa tabarakallahu moo doon jiite guddi yi ñu doon jàng burda bi ixwati wa ahbaabi nee na yéen mbokk yi soppe yi jazakumullahu anna kulla xayr nee na mi ngi ñaan yàlla yàlla nañ yàlla wutu fayal ñu leen yiw fal nuksiri duaa nee na wa sayidina wa xabibina wa xalifati jaddina wa xalifati cheikhina tijani asayid abubakar mahamadul mansour nee na daal lim ñuy dénk ñun ñëpp nañu sax di ñaanal سنو خليفة سنو سرين سنو كليفة سرين بابا محمد المنصور أنا أعرفه أنا مم خم نكود إيران خم نكود أبو باخ باخ لأنني كنت بين يديه نختي لخم لنا كون بأمر الشيخ الحاج من جاي الشيخ الحاج الشيخ الحاج الشيخ جاي لولو نك مين عمون تشيندي قولو باب الحاج الشيخ جاي ما بي حياة السيد أبو بكر سميه و والدنا الشيخ الحاج محمد المنصور انا بابا نياري وي جورم يو تيد يويو نيغي في لو ياغلا موي سيرن بابكر سي منصور سيرن بابكر سي خليفه اك الشيخ الحاج منصور رضي الله عنهما هذا ايها الاخوه وما كنت ان اتكلم ما كنت اريد ان اقوله في حقهما ثم في حقكم انتم جميعا نينا لي موي كادو يم بغون ييكتي واخكو سي نياري دومام يي اك ني ني اندال اك نينا مبولو مي في تيو ييب واشكر ابنائي nee mi ngi sant mi ngi sant doomam yi doon yëkkati fala budda bi ci turam ak turu xalifa bi jazakumullah nee na yàlla yàlla fay leen jamian yéen ñëpp nag bi ma fihi nahnu nee na nee na ñun ñii di wax sax ci la bokk yàlla na yàlla fay ñëpp alladina sarahtum sudurahum ñi nga xamante ne bi bégloo ngeen leen bu baax a baax a baax adxaltum surura fi qulubi ngeen dogal mbégte ci seen xol اما توصل الشيخ الحاج مالك فلا بد من شكوى الى الله كربتي إيه، انا توصل بي نين دون جانغ موي فلا بد من شكوى الى الله كربتي تمام شيخ الحاج مالك دفكو في المرحله التي كتبها نينا إيه، في وقت بيغا خامنا سي لاكو بند كان قد وصل وصولا كليا الى الى الله نينا بوبا فكنا مو اغ اغنا بوبا سي ديغنتي بروم وبين سيدنا محمد رسول الله وعلي اغنا اغنا يتم نك بوبا سسنا رك صلى الله عليه وسلم إلهي بقب العارف إلهنا أجائب غوثي للإلهي إلهي إلهي وسيدتي كتاب النظام للولاية جملة بنتج الغفران من كل الزلة بين تجيب الغلال كلها وقايتنا التجان من كل شدة إلهي عند الإله زواياه لكن لا العنان بقبضتي أنادي وهل يجد النداء وأخ الجواب هل الدهر يعطيني مرادي يا الله وحده فإن لم آه يا مرارة عيشتي فالوعد عندك صادق في داري وشدتي وهو عالقين ذنوبهم وما كما الرحمن كل المشيخة كذلك يا إخواني إلهي إنك ومن ينتمي ربي إلى خير ملتي الله ثم صلى به مع الآل والأصحاب بما ذرت شارق وما قال داعيا sëriñ bi nee na mbokk yi. leen di ndokkeel. mi ngi leen di ndokkeel. ci ndigalu suñu kilifa suñu sëriñ ñun ñëpp di xalifa Cheikh Ahmad Tidiane di xalifa Baye maam Cheikh Alhaaj Malick. ci ndigalal suñu kilifa suñu sëriñ ñun ñëpp di xalifa Cheikh na Tidiane Cherif radiyallahu anhu di xalifa maam Cheikh Seydou Alhaaj Malick radiyallahu anhu. di xalifa turandoom itam. nee na di xalifa turandoom sëriñ Babacar Sy radiyallahu anhu. Cheikh Alhaaj Malick. waaw sëriñ Babacar Sy bu Cheikh Alhaaj Malick radiyallahu anhu. suñu mag di suñu sang yi mu amoon. neena suñu mag di suñu sang yi mu amoon. ñom ñep dem nañu. neena ñom ñep yàlla dogal na laqku nañu. Cheikh sayyid mohammedul mustafa Cheikh sayyidi mohammedul mustafa ki njëkk a dem mooy Cheikh mohammedul Habib 1977. neena ka njëkk dem moo di sëriñ Mouhamadul Habib si 1977. mo doon tolok tolloo ki at. mo doon tolloo ki at mok serigne abdul Aziz Al Amin ñoo maase woon. شيخ سيد محمد المصطفى سيد جميل دم سيد محمد المصطفى سيد جميل جيتو شيخ سيد محمد المنصور دم بروم دارا جي سيد محمد المنصور دم شيخ سيد احمد تيجان المكتوم دم سيد شيخ احمد التجاني المكتوم دم ماغي فاتليكو بيمو ديمي انا ميغي فاتليكو بي سيد الشيخ ويجي بروموم سيد عبد العزيز سي الامين مباخ ما مو مو وو سيد عبد العزيز سي مباخ ما موكو وو 10 كيلك نينا سي فوكي وقتو يو تغال wax ak man ci téléphone nee na wax ak moom ci téléphone jàmmante tuuti jàmmante tuuti mu ne maa du rëy la xew de mu ne ko sëriñ bi lu rëy xew na mu ne ko lan la sëriñ bi mu ne ko sëriñ bi lan la mu ne ma sëriñ bee fi jóge mu ne ko sëriñ bi moo fi jóge ko kan mu ne ko kan mu ne ma sëriñ Cheikh Tidiane mu ne ko sëriñ Cheikh Tidiane si ajhastu bil buka nee na mu daal di tàmbali rek jooy mu ne ma xaj Malick yàlla ko dogal mu ne ko xaj Malick ah loolu loolu la yàlla dogal sa cofeel xam nañ ko ci moom sa cofeel ci sëriñ Cheikh ñun ñëpp xam nañ ko waaye nag li yàlla dogal. waaye li yàlla dogal. nangu ko rek. nañ ko nangu rek. moo gën moo gën. ma ne ko ak mu ne ma Pape Malick a ngi nii taxaw. mu ne ko Pape Malick a ngi nii taxaw. ci ci relais. ma ne ko waaw lu ñu ciy def. mu ne ko waaw nu ñu ciy def. mu ne ma dañ ko fas denc. dañ ko fas yéene denc. yóbbu ko Tiwaawan. yóbbu ko Tiwaawan. mu ne ko kon boog ñu daje fa. mu ne ko kon boog maa ngi nii di départ ñu daje fa. gannaaw loolu. gannaaw loolu. sëñ Abdou sëñ Sidi Ahmed dem sëriñ Sidi Ahmed bu sëriñ Babacar si cër yu ceer moom itam jiitu xalifa bi Sidi Aboubacar Mouhamadul Mansour ak Pape Malick ñoo ko taxawu nee na keroog xalifa bii di sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour ak sëriñ Pape Malick ñoo ko taxawu gannaaw gi gannaaw gi Pape Malick dem nee na Pape Malick jiitu moom itam dem gu bette nee na dem gu bette nag ku ñëpp soppoon ku ñëpp soppoon ku ñëpp bëggoon ku ñëpp bëggoon cheikhul xalifa daf ko bëggoon lool. nee na wuy juróom di sëriñ Babacar si daf ko bëggoon lool. man mii xam naa ci dara. nee na moom mii xam na ci dara. Pape Malick ñaari at la ma magee. Pape ñaari at la ko féete mag. bu ñu daan ñëw Tiwaawoon. bu ñu daan ñëw Tiwaawoon. ànd ak Pape Cheikh Ndiaye Mabey. alaaji ànd ak Pape alaaji Cheikh Ndiaye Mabey. teg suñu valise rek. nee na bu ñuy teg seen valise rek. suñuy ëmb. wala seen i ëmb. jubali nañ som Pape Khalifa. nee na jubale nañ ci papaam sëriñ Babacar si. macha allah. macha allah. loolu lépp nee na loolu lépp ñu fekke ko ñu fekke ko mu jur ak wéet bu rëy ci suñu xol mu mu dugal mbégte mu rëy ci seen xol waaye ku wéttali koo yàlla nag waaye nag ku wéttali koo yàlla dootoo wéet dootoo wéet ndax yàlla moo fiy des abadan ndax yàlla moo fi des ba faw mooy wéttali ña ca barzax yàlla mooy wéttali ña ca barzax mooy wéttali ñi desandi ci àdduna mooy wéttali ñi desandi ci àdduna yal na yàlla yokk seen leer yal na yàlla yokk seen leer mi ngi leen di ziyaara sëriñ bi nee na mi ngi leen di ziyaara di leen baalu xaq nee na mi ngi leen di baalu xaq di ñaan xalifa bi yàgg fi lool di ñaan xalifa bi yàgg fi lool suñu sëriñ suñu sëriñ suñu kilifa suñu kilifa suñu suñu lépp suñu lépp sëriñ Babacar Mansour nee na sëriñ Babacar Mansour mooy suñu lépp mooy suñu lépp yàlla na ko fi yàlla dollee yàggal yàlla na ko fi yàlla dollee yàggal شيخ الحاج محمد المنصور شيخ الحاج محمد المنصور شيخ الحاج عبد العزيز شيخ الحاج عبد العزيز الدباغ الدباغ شيخ الحاج محمد الحبيب شيخ الحاج محمد الحبيب سي ميل ناني نينا ميل ناني بما كان ادنا موم ان ات ميم كان ادنا te sëriñ Babacar yëg ko ndax góor gi dafa yónnee ci moom. te sëriñ Babacar yëg ko ndax góor gi dafa yónnee ci moom. dafa def benn ay dafa def ay baytu yónnee ko ko. dafa def ay baytu yónnee ko ko. ci saase. lam ko ubbee. lam ko ubbee. moo di hani an. moo di hani an. dabbaaxil quluubi. li dabbaaxil quluubi. li rabbihi li rabbihi. ndokkeel gu mu ci ndokkeel. ndokkeel suñu rakk bi nga xam suñu rakk ji nga xam ne. dafay wulli. xol xolu jaam ñi ba mu nooy dafay wulli xolu jaam yi ba mu nooy sebej ko sebej ko jox yàlla jox yàlla سيد عبد العزيز الدباغ مين كنت تدنا موم نينا كيم كنت تدي مودي سيد عبد العزيز الدباغ بار الاولياء نينا تي اولياء يو ماك يي نيك تي ماروك لا بوك دا دان ليغي تي در دا دان ليغي تي اي در nitu yàlla yi du ñàkk mécc ak di liggéey su sébëjee der yi bu jëlee benn der sébëj ko dal di ko jaay dal di koy jaay ca am lam ca am. mu doxale ko biiru këram ak njabootam. nee na mu yóbbu ko ca ca ca biir këram ak njabootam. waaye Sidi Aboubacar nekk alxaaji Abdoul Aziz alxaaji eh, alxaaji alxaaji. waaye sëriñ Babacar nee na Cheikh alxaaji Abdoul Aziz moom dabbaaxul xuluub la ay xol lay wulli moom lay sebej jox yàlla li rabbi yàlla nañ yàlla taas ci seen barke. lii daal mbokk yi. nee na fu bëgg a wax rek beneen nee na loo bëgg a wax rek beneen kàddu wala beneen wax moo lay gàttandu yàlla def loolu ci ñoom yàlla def loolu ci ñoom maa ngi fàttaliku nee na mi ngi fàttaliku amat mazayaahu nee na amat mazayaahu bal daarat zawayaahu bi ko bi ko sëriñ Babacar ci commencement 1950 jëm kaw nee na booba dañ ko doon jaay am na ku ñu daan wax cerno dem am na ku ñu daan wax cerno dem tuuti la woon nii tuuti la woon nii mën bind te mbind ma rafet te gaaw mën a bind te mbind ma rafet te gaaw nit dañ ko daan wër nit ñi dañ ko daan wër di ko rang mu di ko di ko rang su kum ko bindal kum ko bindal nga fay ko deux cent francs nga fay ko ñeent fukki dërëm du ko fàtte mukk nee na loolu du ko fàtte mukk xeeta ubaytuka إن هذا عبيدك عند الباب عند الباب يقرأ وليس يعلم إلا أنت من آوى هذا عبيدك عند الباب يقرأ سيعلم إلا أنت من عاه ألا عبيدك عند الباب يقرأ عليه سيعلم يعلم إلا أنت من عاه سرين لا نيغي ييكاتي كادو ني تي سونو سوبي سونو سرين موي شيخ الحاج منصور نيكاي جوخ تي رام ديكو جوخ واتي نيو سرين بابا كرسي بو سونو ويجور سرين عبد العزيز نيو شيخ سيدي محمد المصطفى nuyu Serigne kër siise nuyu surafa yi fi nekk yëpp suñu waa kër maam sunu waa kër maam Serigne Habib Tall sunu waa kër wéy jur Serigne Habib Tall di nuyu kilifa yi ñu bokkal jataay bi yëpp nee na di nuyu al imaamul akbar imaam alxaaji Moussa Diop di nuyu it président daaira yi nee di nuyu daaira yi waaye di nuyu mbokk yi fi teew yëpp nee nag di nuyu diine ji yëpp ndokkeel leen ci guddi gi nga xam ni mooy guddi màggal juddu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne fa tabaarakallahu ne ñu ngi leen ci ziyaar di ñaan ngeen nangul ñu suñu ziyaar nangul nañ la si nangul ñu ne yàlla mi nangu yàlla nañu yàlla boole nangul ne dafa mel na ndigal moom bu jotee ni ko góor ga daan waxe rek soo mënee defal soo mënulit defal ne fa tabaarakallaahu nee na ñu jéema uppil sunu sëriñ bàyyi ko nag ak kàddoom ak gàmmoom ne fa tabaarakallaahu ne ñu tënkoon tuuti rek ci leeru yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne li yàlla wax ci alquranul karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم من الله نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام nee ñu tënkoon ci leeru yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy annuurul muhammad yi nashatan wa tatawuran wa qad bayyana lana al aalimu al allaama al andu bi ilmihi العامل بعلمه الشيخ سيد الحاج مالك رضي الله عنه في كتابه خلاص ذهب في سيرة خير العرب هذه النشأة للنور المحمدي ومراحل وأدوار تطوره قائلاً وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبانا من نوره نور نبي العالمين إنه إذ أراد الله نشأتنا أبانا من نوره نور نبي العالمين لنا أبانا من نوره نورا بالعلم إذ أراد الله نشأتنا أبانا من نري نورا في العالم ne yàlla nañu yàlla fayal maam Seydi El Hadji Malick ne li ñuy junj ci leeru yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ni mu sosoo ci biiral gi ko sunu waajur wa mag woowu biiral muy Seyid El Hadji Malick yàlla na yàlla yokk leeram nee na moom mi nga xam ni moo jël xam-xamam di fóore ju mag ja موخ تي تيري بو ري با محمد اك من خيرة الكرم للخيرة الكرم فتبارك الله نيتي ليرو يونت الله محمد صلى الله عليه وسلم اك اتاب يمو ci waxam wax bu reuy ba mu wax mom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ana min allah wal muminuuna minni fofu la gor gi nito ni innal awalima awaalima aaliha wa saafilaha ash'atun طلعت من أفضل النصر إن العوالم لمعاليها لها أشياء طلعت من أفضل النسل على نبي الشيخ سما منا إن العوالم عليها وسافلها أشيعة طلعت من أفضل الناس فتبارك الله إن العوالم نك موند يب موند moo xam هذا ya féete kaw wa saafilaha ak fii ñu nekk ak yi féete suuf ashaatun ay ceeñeer lañu talaat yoo xam ni fenk nañu min afdali nasami wa aalama allahu haadina nubuwatahu وكان آدم بين النفس والنسم من عيون الأرواح من نور الهدى انبجست فإنه الجنس العلى معدن السطم وذلك النور هو الحقيقة المحمدية التي تسمى نشأة الحق ne nuru muhammad tuduna nashat al haqq tuduna na nuurul muhammadiya nee fa inna wujuda kulli khairin wa mawjudin min hadihi alwujud متوقف على سابقية وجوده صلى الله عليه وسلم فتبارك الله ينتي الله محمد صلى الله عليه وسلم ين يب تليرم لن يسقيكو إمام إمام سكيري رضي الله عنه نين الليرو ينتي بي هو أصل الأنوار فنور محمد صلى الله عليه وسلم هو أصل الأنوار وهو التي تقتبس منه في سائر الأدوار والأطوار وإلى هذه الأطوار يشير جدنا الشيخ الحاج مالك رضي الله عنه في كتابه فاكهة الطلاب قائلا وقد سقانا خالق العباد ثمان مرات بنور الهادي وعالم الأرواح حين خلق خلق الله نورها سقانا مطلقا فتبارك الله leeru yont yàlla muhammad leeru yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam fala leer yépp soqe ko ñu wax ni bi yalla timé ruh yeb ci arwa' arwah ni alastu bi rabbikum ñani bala kep ku wuyu bokku nga ci ñu juk moy ñal leer yalla ña weddi ca kéeféer la ñuy deewee nee na wax wa yawma a qaala rabbuna alastu man ajaaba qad saqaahu anwaaran wa man na man lam yujib fa saqiyu fa zalamu zalaamu aadana min dalika zalaam amin فتبارك الله مملنا يننت يالله محمد صلى الله عليه وسلم شيخ سيد الحج مالك لير يننت يالله محمد نانا نان لن نكو جروم نيت يوت objectivity. ca na mu ko waxe ca faakiyatu tulaab ci leeru aji gindi ji ma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ca aalamul arwaax ba yàlla di bind leer ya di leen nandal ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa ci jamono yi nga xam ni ma ngay melal ak di formé ni cooy lee ni cay yi leeru yonent bi sallallahu alayhi wa na yi nga xam ni ña nga xam ne leer ga dal na leen ca ba muy ne naa cas leen sànni leer ya ba mu leen ne ndax duma seen borom ñu ni aha kay ña nangu mu sànni leen leer nga nekkaat ci sa biiru wéyjur mu ni la cas leer ga انه هذا من تصدر في بطن امه سقي بالنور كذا لدى الخروج وانتقامه بالثدي بثدي امه بلا انتقامه في مؤمبي من الجس لير ينتب صلى الله عليه وسلم غير نام سبيانو ياي من الجس لير ينتب صلى الله عليه وسلم mais su ko defee nag ñi nga xam ne nanguwuñu ñoom duñu nekk jullit ci kéeféer la ñuy dee ne kon fa tabaarakallaahu ci leer ci yàlla muhammad ci la ñu bind leer yëpp nee na li xew ci àdduna yëpp ñu ngi niitoo ci leeru sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam تبارك الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يالنا يلا خير نيوتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امين يلنا يلا دف نيو نيك سوباي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم di siyaar bokk yi yëpp di ñaan ci mbaaxu yàlla nii ñu ko fekkee ren yàlla nañu ko fekkewaat ay at yu bëree bëree bëri ne dañu doon ubbil rek di ci barkeelu ne di jox sëriñ Mansour gàmmoom nag mu gàmmu gàmmoom fa tabaarakallahu assalaamu aleykum ورحمة الله تعالى وبركاته ولادتي حسبتان إذا لم يكن نحو الحرام عدول على عزم الإله ولادتي حسبتان لم يكن أحوال حرام هدول ألا عدم ليلى ولادتي حسبتان إذا لم يكن نحو الحرام عدول Mansour bi fi nekkee su ganu marokin yi ñëwee dafa ma bawleeg ñoom ni ma soxdee dem ci réception officielle bi nanga toog seen wet ma ñëw ànd ak ñoom toog seen wet sëñ Abdou di def discours am ba ñëw ci bayti bi wax bayti bi bayti bi yéem marocain yi waaye du charte bu jëkk bi moo leen yem walakin ida lam yakun naxwal xaraami nu mu ni loolu si góor gi yokk nee na loolu moo leen si yem mu ni ma ndax wattu nga ko fekk sëñ bi moo ko wax si discours am mu ni ma ndax wattu nga ko ma ni ko wattu naa ko mun ma bindal ma ko ma bind ko mu fàttali ma nag benn affaire dafa am benn tabaski ma dem nigeria dama amoon benn mission ma dem Nigéria tabaski fekk ma fa ma dem di julli ji it imam bi bi muy def discours mu wax ci discours lu ma yéem ni ñun de jullit yi dama leen di fàttali ni alcool bokkul ci sunu fet

tey di gàmmu gi ñu ñaan yalla rek gàmmu gi tay fi ko daan jaarale ndax kenn du sëñ Mansour kenn du sëñ Cheikh kenn du sëñ sëñ ab dafa am benn bu Babacar ku ku mel na boroom daara bi itam du fi am dootu fi am dootu fi am ñu ñaan yàlla mu saxal nu fii li ngeen yaakaar si ñun di ko sént si ñun yàlla bu yaakaar tas yàlla na fees dellu si ñun ñu am nag temuga gàmmu bi bi hadi rasul nuwajjihu al ajjal jami' al ajjal lakin bi bi hadi rasul si yon yu nga xamni bi mom la ñu yonenti bi tek waaw walladhina jahadu fina nahdiyannahum subulana wa inna allaha wala wa anna allaha la la la maa muhsinina waaw yàlla ku jaar si sama yoon rek te alaaj malik teg nañu si yoon yu ba pare waaw kab la ñun ñu wax suñu had yu yàlla ne moom si boppam moo leen di teg ci yoon yi xoolal ñaari thème yi nga xam ni ñoo dajaloo ñoo teglewoo daaw lan moo doon thème bi waqulu linnaasi حسنا تيمو اندي تامبي تامبي تام نيالا كونسان لودول لا جونيس وقد كان في رسول الله اسوة حسنة كون نك نيغي نيك سي ليغا خامني نياري تم جوغا خامني سيد حاج مالك لي في باي كعاده لي في باي كتراديسيون ñu ngi tegu si yoon waay waay yàlla nunu yàlla yàlla nunu yàlla dimbali dangay jàng xilaas si zahab mu am benn problème mu actualité fekk góor gi traité ne bu yàgga yàgga ala nabi wa alim ajmaina سلام ربنا دائم سرين منصور سمامنا وعبد موت طلبنا لقاه سائله جماله وهو في نور لبدر مولودنا على مدام مالك رونك عني وقال من بعد ما أولى ومكرمتان حتى تنافسك يا مولى عن الحرام على نبي وآله أجمعين سلام ربنا دائما عمي سيرك بابك رسلا ولا سألت حما بيتي بي شرفت آباؤك الغر بين العرب والعجب على نبي وآله أجمعين سلام بنا دائم مدى مالك رومك وقال للبيت رب سوف يأخذ عظيم قومك لا أبغي سوى نعمي juróom benn bayt rek ah. si buntu bi nga xam ni mooy buntu ñeenteel si xilaasu zahab si buntu fiil yaa woy la abraha sa maam di wax ni abraha de sooy na ay mbébétam wala ay yéeneem parce que lan moo xew na ngeen jàpp loolu par rapport à la situation actuelle ah gis na ni abraha buuru yemen la woon histoire gudd la ba ba nekk nguur Yémen bugguma ko guddal si waxtaan wi mu nekk buuru Yemen gis ni eh, xujjaaj ji ñi ngi dem di leen romb di aji màkka di fa sotti alal bu rëy rëy alal bu baree bare moom mu xalaat ni au lieu ñu ni koy romb di dem na tabax fi benn espèce de église ba pare bu nga xam ne bi au lieu que dem di wut kaaba gi lépp lu ñuy yóbbu ci kaaba gi nañ ko yóbbu fi mu am benn saoudien jóge Quraysh yëg lool dugg ci biir église yu jaamu dafa yu salte salte dem fa gannaaw kër ba pare nag jël brosam raax ko si mur yi Abraha bi mu ñëwee mu ñu waay kii nii lay traité sama man defuma leen dara nii lay traité sama dama bëggoon rek tabax lu mel na Kaaba gi au lieu ñu dem di wët Kaaba ñu ñëw wët ko fii bàyyi fi seen alal mais moom xoolal lu ñaaw li ñu def danaa réagir dem toj Kaaba gi naa réagir ba nu xam ne du ma seen moroom waaw waaye nag. sa maam si malik ni soyna khalat bi nga xamni Abraham mom la amoon pour ñew toj kaaba gi neena so si alam tara kayfa fa'ala rabbuka kep ko xam ki da nga am mar bu lay bëgg rey pour nga xam la nga xamni mo xew ci Abraham Abraham moy ko nga xam ni kanamam dafa weex muni nga jang alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi sa maam ne ku bëgg xam lu xew demal jàngi alam tara waaye abdul muttalib bi mu ñëwee laqaahu dégale ak abraha lan la ko wax parce que dafa yëg ni abraha bi mu duggee dafa yabal ay nitam lépp lu nga xam ni gëléem la wala ay gàtt la yu nga xam ni nekkoon nañu màkk lépp la dagale quatre cent 400 gëléemu Abu Muttalib la dem jël yóbbaale ko Abdu Muttalib moom bi mu ñëwee eh. situation de guerre civile bi mu nee mu dajeeg moom mu ni luy sa ay tank, mu ni man li ma indi dama dégg sama ay gëléem eh, nga jël dama bëggoon rek nga delloo ma sama ay gëléem eh. jàmm ni ñooy Abraha ni ko yaa bett am na fu na tegoon tegatum la fa yow mii nga xam ni bépp tedd nga boo am si àdduna sa ay maam am ko sa ay baay am ka kan moo la ko jox kaaba gi moo la ko jox ma ñëw ni damay toj kaaba gi amul loo may laaj lu dul ay gëléem bett nga ma fi na tegoon tegatum la gannaaw nag bi mu ko teralee joxote naa nga mu wax ko loolu mais déglu leen sago bi nga xam ni la Abdou Moutalib àndal ni ko bayti bi lil bayti rabbun soo fa ni ko mën a laa siwa naami kaaba gi am na borom boromam mën na ko protéger mën na ko sàmm man daal li ma bëgg rek jox ma jox ma sama ay gëléem ma dem jàmm ni ñooy xam nga foofu situation de guerre civile la woon waxuma sax gëléem yi ñu jël mais ñëw di toj si kaaba gi Abraha bi mu ñëwee mënoon na fa fekk une contre-armée ñu xeex ak moom rayante mais mu fekk Abdou Moutalib mu ànd ak dal ni ko kaabe am na borom de sama yoon nekku si man daal di nga xam ni mën naa ko res mooy sama ay gëléem delloo ma ko ab dafa bëgg intimider ko génnee ko benn waay bu nga xam ni rëy na rëy bu nga xam ni soo ko daan gis di daw waa ji bi mu gisee ab Mutalib parce que dana si ñëw précision bu am solo la yonent bi juddoogul mais son existence mi ngi commencé di def en fait c'est le prophète yonent bi moo sauvé Kaaba gi ñu indi waa waaye dafa euh, euh, euh, dafa gis ab mu tuddee daal di rot daal xëm ñu indi beneen gëléem bu nga xam ne bi musul su jootal kenn waaye gëléem gi bi ñu koy ñay bi ñu indee ñay ñay bi mi ngi tag parce que leer bi nekk si kanam leer yonent bi mi ngi commencé di feeñ si Abdul Mutalib ndeysaan bàyyi may suñ ko gisee ni am na lu nekk si ndigg de Abdou Moutalib waaw mu ni ko yiw rek la karaama rek moo fi nekk bi nga xamee ni ab Abraha gis na ni ñi mu wóolu woon yëpp dafa ni su ne Abdou Moutalib gisee daanu tiit ku ko si gis su jootal ga waaw am na benn ñay bu tuddoon Mahmoud Abdul Abbas musul pas Moussou musul respecté kenn même Abraha daaw ko def pas dafa de yonent bi rek daal di je ndax suis bi mu jolli ci Abu Mutalib bi Abdou gisee loolu rek mu ni jox leen ko la mu dem plus mais leçon bi mu ci Mansour su amul sago général am un chef d'état bo xamné ne bi bugguma sax du chef d'état bi mais en tout cas des nañu bomb si cheikh euh, si haj malik so amul sago parce que man ñu mel na man euh, nous sommes des en guerre Mais mu ma dalal ma dal mu euh, eh, borom de te de mu ni ma nag ren suma fi yàlla bayee yaa woy la abraha lay gàmmoo yàlla nag yóbbu ko mu ni woon tey naa si barkeel yi si abiyaat yi rek ba jamono gën naqali ma yaatal ko parce que bunt bu am solo la xam nga lu tax mu am solo situation bi ñuy vivre mooy situation abraha ñëw di di dal si kaw ici, pour des raisons politiques comme ni Abraha gisee woon ni pèlerinage économiquement était intéressant mu bëgg tabax église yi boppam le certain certains partis politiques au niveau du Sénégal gis influence bi sëriñ am bi waa kër Seydi Malik Malick am bi waa kër sa Omar am bi waa kër sa Touba am ñu bëgg influence boobu c'est-à-dire nous toj ni Abraha bëggoon toje Kaaba gi ñoom non la ñu bëggee toje tariqa yi pour que influence boobu nga xam ne mënuñu ci jot ñu jot si loolu mooy problème bi loolu mooy enjeu bi waaye ni Abraha sooye woon noonu la ñuy sooyee ndax li turuxi rabbun sawfa yaxfuz yaxfazuha daan ko sàmm tariqa yii liggéeyu mag ñi la liggéeyu baatin la waaye li am solo yonent bu juddoogum leeram rek moo fi nekk waaye à chaque fois que ñu bëgg toj kaaba gi ku mu génn pour que mu tiital abu mutalib leer yonent bi mooy génn rek mu dellu gannaaw kon yonent bi xeex bi moom moo koy def kon su nu demee ba kenn tojul kaaba gi barke yonent bi la si wàllu baatin moo xeex xeex bi ba Abraha dellu bi mu demee nag ba dellu nag mu am benn gëléem bu nga xam ne bii wala benn ñay bu nga xam ne bii foo ko mënti jublu mu dem waaye soo ko jubloo kaaba gi rek mu taxaw da daal day dootul demati liggéeyu baatin la ñii di tëb di dal sëriñ si di dal tariqa yi danu dem ba dañu jéeg-jéeg rek ken dot len dig yene wum len nak alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil parce que loolu soo amoon benen affaire la yam ngeen réfléchir bu baax si yaa la abraha yaa la abraha mën nañ ko wax si yu bare bare yu xew si Sénégal fi ndax li leen intéressé rek mooy li fi mag ñi liggéey ñu dindi ko fi mag ñi dañu ñëw am seen stratégie waaw yawma laa yanfau maalan laa yanfau maalun wala wala banuun illa man ata allahu bi qalbin seen liggéey yëpp qalbu salim la seen liggéey lépp lii yëpp qalbu salim moom la ñuy préparé donc liggéeyu baatin la loolu mënoo ñëw rekk ndax sa ay propagande ak sa ay wax yu ñaaw di daal ci seen kaw kooku beneen mbir la waaw bu boobu moo tax sa maam wax naa ko barki démb bind zajrul xulub sa maam euh, euh, euh, sëñ Tuubaa bind jasbul xulub pourquoi mag ñi tëb rek attaqué xol pourquoi ñu tëb attaqué xol ma yaakaar ni mbir mi foofu la nekk ñi ñaan yàlla ci barke guddi gu tedd gi yal na nu yàlla nangul sunu ziyaara nangul nu sunu gàmm محمد مزاياه بغداد زوايا وخجاك وهذا عبيدك عند الباب يقول روى ليس يعلمه إلا أنت من حامد رزاياه بل دارت زواياه عمة مزاياه بل دارت زواياه فرقنا إن المعلل أعلى في المياه سرقيس من جاءنا قد رمي وأفشاه محمد ماذا ياو بل دارت زواياه محمد ماذا ياو بل دارت زواياه هذا عبيدك عند الباب يقول وليس يعلمه الا انت من السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ماني نيو مبوك جوليتي في تيو ييب جيتال سي نيو يي صلى الله عليه وسلم di nuyu shérif di sëtu Seydina Cheikh radiallahu anhu ko jox wàccuwaayam di nuyu fa tabaarakallahu kilifa jataay bi muy bal qawmi di nuyu kilifa yi fi nekk yépp bi may agsi la sëriñ bi di daaneel wa xitaamuhu misk kon melna ni amna chance ba fekke fa tabarakallahu jeexitalu ndab li ndax fa le vitamine yep di wàcc waye ma jotali rek nuyo khalifa bi ak ziyaram di ziyara njabot gi di leen nemmiku rawatina ci bés bu tedd bu sel bi fa tabarakallahu ñukoy ñaanal yàlla momit yàlla yagal ko fi may ko wér ak wérle li mu naal yàlla ci mbaxam may ko mu soti ci kanamam mu fekke ko lu yag yag yag mok rakam yu bax yu tedd yu selli mawlana cheikh sayyid al haj malik dabbaax يحوي المنى بلقائه ولقاؤه يوما فمين حتى مالك لله در الكهف بوكو جانغاتي دم با سي سوف سمتون سمتون ak samtun بالصاد يبدي الغوامضة كوك موي مام شيخ سيد الحاج مالي موتاخ موني يوم ميغا خامتيني ياغي ساكو نيك وسيلة مام شيخ سيد الحاج مالك امنا نو ورا مل بول بوك موك تي نيغا خامتيني دانيي خوتي وور موي دينه تي كو بوغا اندك ماك مو ملني مام شيخ سيد الحاج مالك رضي الله عنه waaye yow mi bëgg sóobu ci géej gi nag bëgg àgg ci dàtt bi yow mi nga xamante ni féeykat nga walla nappkat nga loo aay aay aay loo gaaw gaaw gaaw mënoo dab góor gu mel ni maam Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu ci am xam-xam ci yaru ci bëri teggin ci am mayu yàlla moo tax mu ni ndànkul ca loola teg ca ni nag moom boroom màndarga bu rafet la de waaye ku bëri woon lu muy noppi la gis nga bu xëccoo daan am sax fa kunu daaimina ala sukutin fa ajrullahi xayrun kooku mooy maam Cheikh Seydil kan moo ko xamal góor gu tedd gi tëdd fii moo ko wax de radiyallahu anhu moo tax doomam ji feelu ko sëñ Cheikh Ahmad ci niñ ko wasfoo ci imam malik ci xam-xam bu bari ba ci xam xadis bu wér ak bu wérul ci déggu fiq waaye mu ni ñaari malik a ngi noonu mu ni sëñ Babacar kon yow yaa leen ñetteel moom sëriñ Cheikh moo ko wax almaktuum ñu ko yaa leen ñetteel tabaarakallahu ci xam-xam sëriñ Babacar baxrun la saaxila la ci dégg diine fa tabaarakallah góor gu tedd googu nag moo ñi mosal ba ñu mën a xam kan mooy sangu-sang yi ci xam-xamam yu bëri yi ak ci may yu ko yàlla may min kulli wasfin xamidin bu leen woy xaasa dama dem ba indil ñu ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wal kaffu ma darabat wa laysa xayrul wara yooyu yëpp ay qualité la sallallahu alayhi wa sallam ba tey baaxe ñu ci yaa ayyuhan naas mu ni afshu salaam kon jàmm lu am solo la di ko doxe di ko waxe nag da seef seetloo gàmmu daaw bi xalifa bi la mu tànnoon wa qulu linnaasi afshu salaama wa at'imu taama وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام لن موي ريكونفانس بي دغ الجنه تي لودول يورنتي كون نك اي كاليتي لا تبارك الله كون نك يالنا يالا ديمبالي ني با ني مانا بوك تي ني توپ لولا ملنا لي سيرين بي دون واخ ليغي موي وختامو مسك بي نك موي وختامو مسك باسكو borom gàmmu gi moo ñëw Mouhamadul Habib <laughs> macha allah. sëriñ bi wax na ni mu ngi sant képp koo xamante ni tàllal nga sa loxo jëmee ko ci dawal sa yéene dawal sa yéene ngir gàmmu gi mën a rafet ni mu rafete yal na yàlla sampal leen sampu teranga bu dootul sempiku te barkeel leen seeni yëngatu kenn ku ne luy sa mébét ci at mi lu kawe sa njort yàlla na la ko yàlla wan ñi bëgg a tukki am yoonu tukki bu jàppandi yoonu avion te bañ a doon yoonu géej xadara bi mu ngi leen di sant bu baax a baax ndax liggéey bi jëm ci wàllu gàmm gi bàyyeewu leen ko ak kilifa yi ku ne dugal nga ci sa yéene ku ne def nga ci ku ne jàpp nga sa alal nii boo ko ci defee boroom guddi gi daan naa nangoo ci sëñ Abdul Aziz muy wax ni boolante sa bopp ak yàlla mooy lépp luñ la tudd wala kuñ la tudd ni la yàllaay boroom rekk nga lebal ko ca bor nee na bor ba nga koy lebal soxlawu ko dana ko delloo siwaat ca na mu toll moom yàlla te boolante sa bopp nag mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bisam nga dawal ci sa yéene ngir bëgg mu yéwén bëgg mu rafet tabarakallah ku ne ñëw nga ku ne def nga lu ne ci mbaax lu ne ci yaatu yaatu lu ne ci teranga pour bëgg rekk mu woyof ci kilifa yi kilifa yi ñu ngi feeñal cant jiital ko ci moom mii tabarakallahu ak rakkam yu tedd yi rawatina sunu baay bi yegg si léegi ni mu ko waxee itam sëriñ bi nee na ah sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane ci dundam moo doxale woon nii wax ni saa su ne na am njaboot yu jóge fii dem ca zawiya ba saa su ne na am njaboot yu jóge ca zawiya ba ñëw fii ñoom nag tabaarakallahu xam naa ñàkkul désigné woon nañu kenn waaye cëtëng day am moom mi ñëw nag di sunu baay di sunu soppe tabaarakallahu sëriñ mu lay yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla jàppale yàlla taxawu ko yeggaleel ko ay yéeneem zahiran wa batinan way juram si alxaaj Muhammadul Habib bu Seydi Xaaj Malik tabarakallahu ku ne xam na li mu doon ci nun ci côté bu ne nag yal na yàlla dolli ko leer te taas ñu seen barke ñu sant Serigne Mansour sant Serigne Cheikh Ahmed Tidiane sant Serigne Babacar si sant Serigne Babacar Sy Cissé sant mbokki taalibe yépp nag ñaan ku ne tànk yi ngeen duggee Tiwaawan yàlla ngeen ni delloo ànd ak jàmm ci yoon wi ba yegg fekk fa jàmm tabarakallahu yàlla may nu nu fekkee ay at yu bari ca kanam bés bii nga xamante ni bésu xéewal la fekkee ko rek xéewal la ci ab jullit yàlla nanu ko yàlla defal والكف ما ضربت أنسا ولا ذكرا ذكرا ما قادما عاب من عيب ولم يلوم عدني وسليا يا إلهي <laughs> وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم والكف ما ضربت واو أنثى ولا ذكرا ذكرا ما خادما عاب من عيب ولم واو وسليا يا إلهي وجزيا أبدا أبدا عنا محمد مدنا المختار في القدم وصليا يا إله وجزيا أبدا أبدا عنا محمد مدنا المختار في القدم آه، آه. وسليا يا إلهي وجزيا أبدا أبدا عنا محمد مختار في القدم مكي ينكو جيساندو بيغا خابنتني جوغي نانتي زاويه شيخ الحاج مالك سي رضي الله تعالى عنه ني فك فستم دي توروندو شيخ الحاج مالك سي بو سوني مام عبد الحاج عبد العزيز سي دباخ yàlla na yàlla yokku leeram borom 40 ans zéro faute mu def fa discours bu ama am solo jàngalewaat fàttaliwaat taalibe yi xol yépp toy xol yépp sedd ñu jóge fof dem ci zawiya sidil Cheikhul Khalifa Serigne baba kersi nga xamni mo ñëk nek khalifa shal haj malik Alhaji Malick taala anhu momit nga gis talibe yépp tok fofu fa tabarakallahu déglu cour yi nga xamni Serigne Mansour si Jamil def nako ànd ci rakam Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy bu Serigne Mansour ak sëriñ Moulay si bu suñu maam Mouhamadul Habib si yàlla na yàlla yokk seen leer fa tabarakallahu ñu def fa waxtaan yu ama am solo ngeen dégg alxaaji dudd kenn mbay ci way yu neex yi nga xam ne way na ko fa ànd ak sëriñ Moulay si tabarakallahu di doom ci alxaaji mbay doonde mbay noonee tamit ngeen déggee ci zawiya ba alxaaji Abdul Aziz mbay ci way yu neex yi xam ne def na ko ànd ak alxaaji Dagoor mbay ak alxaaji Mansour mbay fa tabarakallahu mbokk yi loolu lañ leen jëlee woon ci guddi gàmmu gi guddi gàmmu gi nag li ci ëpp solo mooy discours bi nga xam ne kilifa yi joxe nañ ko rawatina cérémonie officielle bi discours bi nga xam ne sëriñ Pape Makhtar Kébé ak docteur Pape Makhtar Kébé def na ko fa ci jiitalu xalifa bi xam ngeen ni waxtu bi moo xatonti ci bi ndax jataay bi ak kilifa yi waaye sëriñ Pape ma sëriñ Pape maxtar moom daf ko liir ci arab waaye nag li nga xam ne moom la discours bi làmb xalifa bi wax na ci lépp loo xamante ni ay orientation la yoo xam ni taaliba yi bu ko toppee. fii ba déwén dund gi mën na jag ci ay jikko ci ay valeur mu teg ko ci ay point yu bare bare bari waaye bokk na ci li ëpp solo nga xamante ni moom la discours bi làmb mooy góor gi di sëriñ Babacar Sy Mansour daf ñoo dénk ñun jullit yi daf ñoo dénk doomu aadama parce que discours bi boo ko dégloo xalifa bi waxu ci rek taalibe tijaan yi mais képp kuy jullit képp kuy nit góor gi wax na la dénk na la dénk na jullit yëpp pour ñu ànd bil ittihaadi bokk yi mu ne bëgg naa ngeen nekk benn kenn ku ci nekk boo xoolee sa morom bul gis sa morom mais gisal sa bopp ci sa morom wala boo jàkkaarloo moom fàtteel sa bopp gis ko yéene ko lu baax loolu nag dafay tàmbali ci mbooleem couche ci société bi mu ne at war nee na ñu ràbbalante nekk benn xalifa yi nee na war ñu def solidarité dimbalante دوم كم نيغا خامني نون لاكو صحاب صحابه يي دون ديف ييغا خامني نيم ньо ورون يونت بي صلى الله عليه وسلم ديمبلانتي تي مباخ ديمبلانتي دما دم با القران تاغلن نلن ويو سيرونا على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يخشخ نفسه فاولئك هم المفلحون فتبارك الله مانام داغي دما دم با بو تيرانغا امي غا افاسيو بوس سامروم غين موم مو جاري نيوكو ناخ يينا بوك بن جوليت ييب بن لاني فتبارك الله ci discours bi xalifa bi ne wa taawun alal birri wa taqwa laa alal ismi wal udwaan mu ne maa leen di dénk ngeen dimbalante ci mbaax dimbalante ci ragal yàlla waaye mbokk yi bu leen dimbalante ci bàkkaar ak mooy yàlla loolu baaxul ndax doob sa moroomu jullit boo gisee mu nekk ci loo xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf koy tere ñëwal ci moom nga tere ko ko fàttale ko ci njekk ak teraanga fa tabaarakallah loolu la xalifa bi digal digal digle xalifa bi tamit joxe discours boo xamante ni daf ci woote mu ne mi ngi leen di moytundikuloo mbokk yi ci ñuy xuloo ci bañante nee gis nga ak tabaaxut ak tabaaxut li ñuy wax bañante ak taxaaqut ak taxaasut iñaan ci biir jullit yi nee na loolu bu ñu ko dee def rek dañuy daf ñu affaiblir ba nga xam ni dafay dema dem ba nga xam day nekk benn dànq boo xam ne noon bi bu ñëwee rek mën nañoo seex fa tabaarakallaahu mu wóoñu nag ci ñu def دغرات لي علاقه على علاقه القوه الايمانيه ريلاسيون بو خامتيني ريلاسيون بوك لا واي نغم يالا مو موكاي لال نينا لول بو نكو ديفه رك فتبارك الله دي نين دلو سي ايه بيالا انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين احويكم خليفه بي نك سي ايه بوبو نك لا لين دي وو يين نيب نين بوله سين اي سين اي سين اي كادو نين دغرل سين سابي نين نك بن غير دغرل غير دغرل ني التوازن لتحقيق التوازن الاجتماعي xalifa bi dénk ñu loolu fa tabaarakallaahu ci biir wax ci xalifa bi nag joxe benn discours bu ama am solo boo xamante ni daanaka moom la ko tëjee nee na li may wax maa ngi koy dénk ñëpp na du jam nee na maa ngi woo ñëpp rek fa tabaarakallaahu bépp couche boo xam ne ci société bi la rek nee na discours bi làmbal na la ñu nekk benn nee na nag loolu li ma ciy jublu nee na bàyyiwuma kenn nee na maa ngi koy tàmbalee ci suyuuxan sëriñ si mag ñi sëriñ si nee na ñun sépp dañ ci jàpp wa xukumatan gouvernement bi xalifa bi woo na leen ci bennoo boobu wa muaradatan opposition bi xalifa bi woo na leen nisaan jigéen ñi wa shababan xale yi jeunesse bi nga xam ne ñoom ñoo ëpp doole ci population bi xali xalifa bi nee na mi ngi leen di woo ci lan mu ne ila tawxid alkalimati li muwajahati alazamat wa jami al amrat alfattaka allati tuhaddidu kian al ummati nee na maa ngi leen di woo ci ñu ànd nekk benn pour mën a dëgër faire pour fair face ak mbooleem crise boo xamante ni ak mbooleem feebar boo xamante ni bu ñëwee mën na yàq doole société bi mën nañu affaiblir. Sénégal bu ñu bëggee nekk dëkk bu dëgër dëkk bu foor nee na couche yi mu wax yépp nañu àndandoo nekk benn kenn ku ci nekk am nga sa gis-gis nga doxal sa gis-gis kenn ku ci nekk am nga sa ngëm-ngëm nga doxal sa ngëm-ngëm waaye mën nañoo wuute ci bennoo loolu xalifa bi loolu la woote mën nañoo wuute kii ne man vision bi la am kii ne idéologie bi la am d'accord xalifa bi nee na d'accord na ci loolu waaye nag nañu wuute ci benn bu ñu paree nag nañu nekk benn nee na loolu bu ñu ko defee rek fa tabarakallahu société bi dina jëm kanam xalifa bi waaye bi ñuy tàggootoo nee na ndaw ñi maa ngi leen di dénk lenn nee na yéen ndaw ñi yéen ñi nga xam ni yéen yéen ëpp lu ngeen di sëgg ci réseaux sociaux yi maa ngi leen di moytandikuloo ci réseaux sociaux yi nag ngeen di bañ di tuxal information fausse information li ñu wax fake news ak ay commentaire ak siiwal vidéo jambri ak wax saga ci internet bi xas ci xaste ci internet bi ak di tuxal di di transférer ay vidéo yo xamanteni ni fa tabaarakallaahu dafa yak doomu adama wala rafetul nee lu ci way yam ci internet bi rek nee zappe ko bu ko xool bul commenter bul partager xalifa bi nee ma ngi leen dénk bu leen partager mukk vidéo bo xamni ni dafa safam mu ngi woote tamit ci ay phénomène yoo xam ne am na ci dëkk bi lu toll mbokk yi ci juroom benn phénomène foofu lañ koy tëjee xalifa bi nee na maa ngi leen ci moytandiku lool bu njëkk bi mooy zahira al zahiratul istixfaaf bi diin phénomène bi am léegi nga xam ne léegi dañu dañoo doyadal diine dañuy dem ba diine dañ koy fowe gis ngeen jël alxuraan di wax ci moom ay kàddu yoo xam ne fa tabaarakallahu mu yëngal dëkk bi jël léeg-léeg nga gis ci ci yenn théâtre yi yenn euh, film yi ñuy fowee diine kuy julli ba ci digg ba di lekk wala di sàcc xalifa bi nee na lépp loo xam ne day day day woyofal diine nee na phénomène boobu am na ci dëkk bi maa ngi leen koy moytandikuloo euh, ñaareel bi xalifa bi nee na maa ngi leen moytandikuloo mbokk yi ci deuxième phénomène bi mooy phénomène boo xamante ni dafay dafay dafay affaiblir cëru mag ñi nee na kilifa goo xam ne dafa ragal yàlla kilifa goo xam ni yor na njabootam wax dara rek ci internet bi ñu di ko saaga di ko di ko xas di ko wax loo xam ne jaaduwul xalifa bi nee na léegi xew na benn mag ñemeetu la wax ndax saaga yi ci internet bi nee na yéen njaboot gi bu leen ci bokk ñetteel bi mooy zahiratu ishaatil fawahish nee na phénomène boo xam ni dañuy génne lu ñaaw jël yu ñaaw yi di ko génne di saaga lépp lu ñaaw comme ni mu ko waxee woon léegi rek di ko génne xalifa bi nee na mi ngi koy moytu bi ci des mooy crise des valeurs phénomène bi nga xam ne jikko yi yàqu na waaw zahitul inxiraaf al xuluxi nee na jikko yi yàqu na léegi daal tabaarakallahu bu da ngay xool day mel ni nekkoon ci réewu jullit xalifa bi nee na mi ngi leen di moytandiku loolu beneen bi tamit mooy dëgër onf soxar terrorisme saaga xaste agressé nee na loolu tamit xew na waaye yéen ngeen ko moytandiku fa tabarakallahu yii mooy juróom-benn mbir yi nga xam ni ay phénomène yu xew la xalifa bi joxe message képp koo xam ni yaa ngi yaakaar Cheikh Alhaaji Malick radiallahu taala anhu di yaakaar yonent bi sallallahu alayhi sallam waaye di jullit waaye di sénégalais ak fo obédience boo mënti nekk góor gi nee na mi ngi leen di moytandiku loolu ñu àndandoo nekk benn mbokk yi loolu la leen RTS 1 indi loon ci li nga xam ne moom moo xewoon ci gàmmu Tiwaawan bi fa tabarakallahu di leen sant di leen gërëm di ñaanal yàlla xalifa bi yàlla nañ ko fekke at yi bari ak ay rakkam ak njaboot gépp di sant RTS tàmbale ko ci directeur bi ñëw ba ci technicien yëpp fa tabaarakallaahu ki nga xam ne moom ngeen ci àndaloon di seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Kébé wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xaaja bàyyi si ne xadima abi abbas waali sirri xasinata asraari tariqati umdati mam mawdo فرجكا الله خسق شيخنا موهائب لا تخفى على ذي بصيرتي وابو لا يعطي لمن شاء ما يشاء بالله من ما لا يحاط بفكرتي سيحا ما يصير وأنكم حقا خليفة شيخنا ابن الفيض مولانا دفي ولادتي مولو إذا صح من الود يا شيخ فالعلن قراية لديك اليوم نظرة عطفتي لقد صح أن الود فيك محقق الولي إله العشباء البرية فنجعل شيخ الإله مخيما لديكم فعاملني بروح الأبوة من فلي بما يحتاج من خير والد ونحن لنا بالحق حق البنوة أسيدنا كنت عباد جميعهم إلى الله فانقادوا بحسن سياسة ولين وآداب وحلم وسدد وحمل أذعام دون من وسمعتي وحاربت إبليس اللعين وحزبه بحزم وعزم واصطبار وهمة والشيء ترشدني بعد ندامي ممونا بهمتك العليا لدى كل بقعة من يطلني سوايا أبو العباس يا شيخ أسست بأملكم الله في كل بلدتي إلى ودعتي سميت حمدنا أبرزت أيك كتبين الفار فما إذا ورعتي سمي وأمرنا أمرك تبي أيك كتمان الفتى فجر لنا وصلي يا إلهي واجزي الأبد آمن شفاعة في غدي يمن ينال رضا كل عبد واحد على خطي في ذنبي أو أنت مدي جرائرنا تمحى بجاه محمد إذا شفع المحبوب جاز المباح جو